jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu mbékte mbégte nu ñu koy defee àllarba bu nekk dégtal leen seen émission décryptage tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee ci décryptage lu bare bare ponk yu bare bare parce que dama dajale nit ñoo xam ne ay analyste lañ ñi ay sociologue lañ su ma tuddee ay tur sociologue boo xam ne dañ koy faral di dalal fii ci émission décryptage di ngeen njort ne kan la dinañ ci dellu si waat léegi ci présentation yi euh, waxtaane ponk yu bari dañ waxtaanee parce que gis nañ tey jii ni moo nekk. nit koo xam ne innové na dans la pratique politique à travers manifestation bi mu defoon ci place de l'Obélisque mu jur nag coow lu bari boo xoolee boobu ba léegi moom amul jàmm attaque bu nee ni nga ko ci def lu ne ni nga ko tuumaal est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau ci pratique politique Sénégal discours am ak attaques yi ñu koy def tamit loolu yëpp dañ ko waxtaanee ak ni mu révolutionner un peu la pratique politique den wax tamit euh, un peu euh, sur les sondages wax aussi sur notre démocratie est-ce que on mérite jusqu'à présent Euh, di wax ay sondage di ko tëj du génn te du génn boobu sax dañ koy wax rek mais mi ngi génn parce que dégg nañ fii ñooy président de la république ba toog ak ay nit nee na leen je risque de passer avec 54 pour cent et même je cherche plus waxoon na ko ñu ne moo ko wax am déet ñu ne réunion la ko waxee tey jii yaa ngi dégg ñoo xam ne sondage boo xam ne daf ko tal dañ ko talone deuxième tour fala budda dina am kenn mënu ci dara euh, ñu ciy tudd ay responsable yu bëree bëri mu mel ni léegi dañ ko nekk lu ñu banaliser dañ ko waxtaanee waxtaanee te tamit euh, li jëm ci attaque personnelle yi est-ce que suñu démocratie jéego yu mu dox war nañu mën toll ba fii du xënte lu dul ay attaque personnelle loolu dañ ko waxtaanee euh, ci biir émission bi maam mbégte ci loolu dalal fii suñu mag ci wàllu tasum xibaar di Assane Samb du journaliste ci yéenekaay bi nga xam ne mooy euh, réew mi di faral di def ay éditorial ay analyses yoo xam ne dañ koy partager chaque matin am mbégte dalal fii suñu sociologue sama la may wax ne sama toomaawu màkka <laughs> jibi jaxate sociologue moom tamit yàgg na ñëw teew jàngatul ñu Sénégal bu ñu tolloo ci mbir yi am mbégte dalal fi suñu beneen mag euh, ci wàllu liggéey bi ndaxte yàgg nañoo ànd ci liggéey bi moom it mu nekk ko xarañ lool ci jàngat bi gis ngeen ko fan yi ay jàngat yu xóot lay def ci réew mi nu muy doxee di Babacar Dione Euh, Moustapha Diop ñu dab ci biir waxtaan wi moom it war a fa yéene bokk euh, ci li nga xam ne moo di waxtaan wi euh, laaj bu njëkk bi moo di Assane parrainage bi rek laay juñ benn gaa yu bëri foogoon nañ ne dañuy dina gàllankoor mais dafa mel ni gaa yi dañoo daas fanaanal de ku nekk yaa ngi wax ne man li ñu may laaj ci parrainage pare na mais nag peut-être <coughs> pouvoir bi dina ci sonal opposition bi ndax poussé na leen ñu nekk campagne nii fas yéene delloowaat encore ci campagne financièrement est-ce qu'il faut tenir naa ñëpp pare nañ waaw waaw noonu la jërë ngeen jëf <laughs> Pape ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Mhm. di la féliciter ci liggéey bi di la sant ci invitation bi di nuyu Jibi di nuyu aussi Babacar vraiment am mbégte di partage ak ñoom plateau bi di nuyu tamit ñu ñuy suivre ñëpp ak kilifa kër gi. Mhm. Euh, El Hadj ak ñëpp daal. ñu leen di ziar bu baax effectivement parrainage bi gars yi pare nañ parce que justement pare nañ ci waa xam nga Sénégal lépp lu ñuy def rek làmmiñ day jiitu <laughs> pare nañ ci làmmiñ waaye parrainage bi dafa am fenn foo xam ne fële ñëpp war a di teer maanaam bu doon gaal tey ma ni fële fële fële fële tefes gi mm-hmm. mooy conseil constitutionnel mm-hmm. kenn ci ñoom xamul ba xam dina jàll wala déet te dafa nekk tuuti psychose si ñoom daf leen di xaw a jaaxal tuuti parce que est-ce que euh, signature yi jaar na yoon est-ce que dinañ admettre say liste est-ce que di nga jàll loolu mooy question surtout ci leader yi nga xamante ni leader yu ndaw lañ euh, ñu mag ñi xëy na parti yu mag yi di leen ëppal doubler sax seen signature wala boog li loi bi maye. parce que ba au moins dinañ mën a am garanti marge de manœuvre mais nag euh, bu dee ñu ndaw ñi effectivement day xaw a nekk tuuti jaaxle si ñoom parce que région bu nekk dañ fa war a am représentant. Mhm. te loolu c' est pas garanti c' est pas sûr comme ni nga ko waxee effectivement ñëpp dañuy daal di nekk en campagne électorale. parce que boo ko seetloo discours bi discours campagne la. <laughs> c'est très clair du du changer euh, bilan Macky Sall euh, boo demee dinaa def lii lii baaxul lii baax na et cetera attaque personnel ak yooyu yi nga doon wax sànq yëpp dafa dugg si dañu nekk en campagne te comme ni nga ko waxee également euh, xaalis mooy le problème parce que Sénégal pour déjà nga soutenir campagne électorale il faut nga am moyen. Eh, te yaakaar naa li xawoon tënk ñoom Ousmane Tanor Dieng loolu ci la bokk est-ce que dañu am capacité eh, dëgg-dëgg def campagne électorale Sénégal te pour loolu il faut nga am xaalis te il faut que nga am ñu nekk sa ginnaaw il faut nga mën a liggéey il faut nga am mën a mobiliser moyens yi yooyu nag dafay nekk euh, double campagne effectivement wax nga ko di mën na leen handicapé mais je crois que ñu ngi góorgóorlu ku si mhm. nekk camp bu nekk mu ngi góorgóorlu di ko def ci civilisé te ñu ngi sant yàlla bi lépp nekkee ci dal Euh, ñu koy def ci tranquille dégguñu si benn coow. Mm-hmm. ñu ngi sant bu baax yi di yaakaar ni xëy na bu ñu ba ca conseil constitutionnel ca tefes ga war a teer ñoom ñëpp xëy na gaal yëpp dinañ mën a indi jën yi ñuy soxla. <laughs> waaw euh, alëb lébu du ci ñàkk <laughs> jibi jibi parrainage bi nekk na nouveauté lu bees gars yi foogoon nañu mën nañu filtrer mais je pense que tamit li ba wax rek gaay yi organiser wu leen ba pour faire face à la situation malgré coow wax ne du ma bokk ci parrainage bi parrainage bi jaaduwul loo ku nekk yaa ngi leen daas fanaanal mhm. euh, merci Papa ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu nuyu Assane ak Babacar nuyu téléspectateur u 2STV yëpp euh, bi Euh, c'est vrai que ni mu démarré ak njàqare gi ñu ci amoon. Mhm. dafa mel ni bi ñu commencé di ko def. njàqare bi ñu amoon ak li nga xam ni moom moo am ci terrain bi en tout cas comme ni ko Assane waxee léegi ak dal gi am am na benn différence. Euh, maintenant ça ne veut pas dire que problème yëpp réglé na. absolument euh, parce que boo ko dee xool ci ni ñu koy doxalee nii bu ñu ci euh, sept régions na fa am 2000 signatures régions yi tolloowuñu population électorale. Mm-hmm. xam nga boo boo boo jëlee région de Dakar. nga comparé ko ak de Fatick comparé ko ak de Louga euh, comparé ko ak de maatam damay joxe ay échantillon noonu rek comparaison comparé ko ak région de Kédougou nga ko ak Diourbel nga xam ni fa la Touba nekk Kaolack et cetera bokkuñu. Mm-hmm. donc dina difficile par exemple ci yenn région yi sax mu mën a ne boo jëlee par exemple une centaine de listes euh, boo ko séddalee population ba fa ne 2000 2000 du mat. donc loolu ay problème la yoo xam ne après dinañu dab. Mhm. maanaam fi mu toll nii. Mhm. Euh, dañu ngi wut waa ñi ngi wut. Mhm. ñi ngi wut euh, mais après boo moytul dinañu dal. beneen affaire bi ci topp moom mooy euh, comme ni nga ko waxee léegi bu njëkk xëy na société civile lañ doon laaj parrainage te demeewul woon nii mais léegi bu fekkee ne candidat indépendant yi laa bëgg a wax. mais léegi Euh, comme deme ne nii est-ce que population yi ci seen bopp ñi nga xam ne ñoo war a parrainer ndax comprendre nañ bu baax système bi nu muy doxe yenn saa yi nga dégg ñu gis nañ ko yore ay carte yu bari téye ko loolu tamit bu ñuy wax parrainage ñi ngi biaisé jeu bi du woon loolu maanaam li li bu fekkee ne comprendre nañu loi bi ci esprit bi moom mooy balaa ngay mën a ñëw ci candidature candidature dafay fekk ñoo xam ne téye nañ la ba nekk nga candidature bu pertinent mhm. mais bu fekkee nag léegi dañ ko bëgg a teg ci damay jënd signature ah. am na problème parce que bu boobaa démocratie doxatul loolu plutocratie la maanaam man maa la ëpp xaalis man maa la ëpp moyen yu ma jëndee signature mm-hmm. te dégg nañ ko fi nag mi ngi dox ah, am naak amul euh, il faut vérifier sur le terrain bi ci topp moom mooy gis nañu ñoo xam ne dañu yore ay am na sax bu benn problème bu ci amoon ah je crois que zone mbuur bi la ou je ne sais pas moi benn daam bu ñu jàpp mu yore ay ay carte d'identité mm-hmm. voilà yooyu yëpp est-ce que cas boobu est-ce que c'est le seul cas mm-hmm. alors donc je crois que euh, yooyu yëpp c'est des questions yi nga xam ne yuy montrer encore une fois que parrainage bi amoon mon avis ni ñu ko jëlee nii bu fekkee nii ci esprit peut bi am nañu ci dégg waroon nañu xaar tuuti. parce que on n'était pas suffisamment prêt te lii lii xew ci terrain bi nii. Mhm. dafay wane ni des na. te bu ñu demee ba ca tefes ba comme ni ko Assane mhm. waxee léegi nag conseil constitutionnel war a ñëw. ñu war faa nekk di vérifier ay signature ndax bii signature ànd na ak yoon ndax bi baaxul ndax kële njëkkul a signal kii parce que des fois am na ñoo xam ne mën nañu signal dix listes ah. xamuñu ko xamuñu xamuñ pour ñoom garaawul di diw ñëw na dama koy signal euh, diw sama mbokk la dama koy signal mënu ma koo bañ a signal comme xamuñu ni kenn rek nga am droit signal bien que ñu ngi def ay spot di expliquer et cetera am na ñi nga xam ne jotuñu ci loolu donc pour dire que euh, pour le moment nii dal na mais à mon avis euh, am na ay quelques problème yi nga xam ne bu ñu yeggee ba ci cëppaandaw ga dinañ ko gis. Babacar parrainage bi est-ce que du nattukaay pour le pouvoir. waaw waaw nattukaay su may na nattukaay moo di. da ngay dégg ñuy wax ne dama bëgg am 2 millions de signature. 1 mhm. million. dégg naa sax bale paase euh, soxna Mimi Touré ba Moustapha Niass di wax ak président di wax na ko Kaolack mokk na. mu ne ko fii sax amal nañ la fi des fois euh, déjà 1 pour cent euh, yi ñuy laajte ci ci parrainage. mu mel ni dañ ko jël comme nattukaay. Mm-hmm. Mm-hmm. pour ñoom. Mm-hmm. ëllëg ak si biir mais parrainer ne pas dire voter pour quelqu'un. déedéet d'ailleurs ñu ngi changé communication sax si loolu. parce que ñaari communi maa ngi lay nuyu Papa Lay di la di la remercier si invitation bi. remercier professeur Djibi Diakhaté ak Assane mon confrère. aussi téléspectateurs yi xam nga dañoo biaisé et biaisé bi depuis le départ parce que bu fekkee yow da nga woote ni je crois 60 000 signatures ngay woote président de euh, candidat sortant tëb rek daan man 1 million laa bëgg xam nga déjà yow yaa ngi communiqué si loo xamee ni otul ak li la taxoon a jóg pour parrainage bi parrainage bi da nga ne woon da ngay wàññi candidat yi léegi nag yaa ngi yaa ngi am course au parrainage wala ba course au au signature léegi dafa dem dem sax ba nekk ay ay kii genre élection entre entre APR élection ak non man non man. genre primaire candidat bu nekk euh, responsable bu nekk. Uh-huh. dafa am sa lu la sas <laughs> le président a ah, demandé à chaque responsable de l'APR na ko <laughs> yow. nombre de signature bi laa bëgg. c'est une manière aussi de. jouer un peu voilà donc xam nga problème am na foofu. Uh-huh. te li nga wax léegi nii si forme forme communication bi dañoon wax nañu signer le président Macky Sall dégg naa barki démb temps yi ñu ngi wax naan. il faut que nag ñi nga xam ne signé aussi daal dem voté yi voté pour le président Macky Sall xam nga ñu ngi boole ñaari ñaari communication yoo xam ne bokkuñu donc loolu da leen di sonal mais li nga wax li ko taxawoon a jóg sonal opposition bi quand am na mhm. te opposition bi aussi dafa tombé dans dans le jeu du pouvoir li tax ma wax loolu mooy yow le président Macky Sall bu ko neexee mu woowee fële mu woote fële centre Abdou Diouf oo ay nitam mobilisé peut-être il a les moyens waaye yow bu fekkee yow opposant nga war a dem élection dans cinq mois est ce que jar na tamit bruit boobu yëpp coow yëpp nga amal ko peut être bu fekkee bës ngay ut ku ko amul woon mën nañoo comprendre mais moyens yi ngay débloqué yëpp pour quand tax daal di mobiliser say nit indi ay kaar wax ba pare bëgg a dem si région yónni say nit loolu yaa ngi yaa ngi commencé jeexal sa doole te yeggagoo si élection mm-hmm. loolu aussi c'est un fait beneen mbir bi nga xam ni mooy indi nag perturbation bu graw wala confusion en tout cas si parrainage bi mooy léegi bu njëkk ba da gis ku ne bu ñu nee élection rek mu ne man man sax candidat la mais da ko doon déclarer rek à travers les médias daal def un peu de chantage. médiatique mais mais ñooñu dañu leen doon woo xam nga le candidat sortant dañu leen doon woo. Mm-hmm. wala un candidat de l'opposition woo leen ànd ak ñoom alliance. Mm-hmm. d'ailleurs Macky Sall ça qu'il a fait. après ñu séddoo ay postes ñu signé mais léegi nag léegi nag président Macky Sall avec le parrainage daf leen a jox crédit ñu bëri xam nga yaa ngi dégg ay 80 candidats ñoo dem laaj ci fiche. Mm-hmm. mais 80 oto oto soixante mille signature de am na ñoo xam dix mille la ñu am na ñoo xam vingt mille la ñu mais vingt mille yooyu boo demee si koo xam ne du ma tudd candidat koo xam ni peut être signature am matul mais tu tu tu vas négocier avec lui zone yi nga xamee ne moom ay signature am matu fa mais yow mën nga ko jox say signature parce que dañoo yaakaaroon ni fiche yi candidat bu nekk dañuy def aspect ba nga xam ne yow dañuy xam ne candidat bii moo moom fiche bi mais loolu amul. mais rek mën ci bindu tur. waaw. mën nañ ci bëgg le candidat man tu tu récoltes des signatures pour tel candidat. pour tel candidat nekk na ci fiche yi quand est ce que fiche bi ok fiche bi est ce que ministère de l' intérieur moo la koy. moo koy joxe wala parti bi non parti bi mooy bind turu candidat bi wala le ministère. non le fiche yi mu joxe. Uh-huh. dañ ciy bind le nom du candidat pour qui tu collectes les signatures. léegi chantage bi mooy que ni tu as dix mille signatures. Mm-hmm. même bu fekkee mënoo ko transféré waaye may na le nombre de voix yoo bi dina ko soxla bu njëkk ba nag da naan candidat rek ñu njortu ni ah kii de am na doole daal di koy woo négocier mais léegi avec 10 000 signatures mais ku nekk dalay lay soxla parce que yow mën nga def transfert de voix par rapport ak ki nga xam ni si élection bi moo tax confusion si 80 ñii laat liste yëpp daal di am confusion boobu li ko waral mooy que ni ku ci nekk yaa ngi yóbbu say signature pour wane ko après beneen bi nga xam ne mooy DER bi conseil constitutionnel est-ce que en trois jours mën na liste yëpp mu comparer ku nekk indi liste 60 000 personnes bu fekkee par exemple dix listes la ñu déposé mais comment la mën a comparer soixante mille personnes par dix listes ku ci nekk nga xool ba mu jeex xool ba mu jeex pour comparer yi nga xam ni baax na wala baaxul. ah nee nañ am nañ logiciel amoon nañu logiciel ko mais mais nañ ko wane. en tout cas on en a jusqu'en janvier mais na nañu xaar ni muy demee de telle sorte que damay rejoindre foofu la professeur Djibi Diakhaté si li mu wax mooy que ni je crois que parrainage bu fekkee ñu bëri d'accord nañu si principe bi dafa teeloon Sénégal. pour moment bi ñu ñu indil parrainage parce que on s'est pas préparé à ça. Mm. <laughs> ah en tout cas on verra bien avec le <laughs> conseil constitutionnel alors euh, Régis xam naa ñu dugal image boobu nag mën nañu wax ne. Mm. le fait y a un phénomène Sonko. Mm. depuis ce qu'il a posé comme débat. waaw ce qu'il a osé faire au niveau de la place de l'obélisque -hmm. un débat public un phénomène il y a quelque chose de nouveau au moins. -hmm. qui qui attire au niveau du champ politique. waaw effectivement. Euh, -hmm. Euh, phénomène on peut même temps regarder les images. waaw phénomène phénomène Sonko bi am na. voilà euh, déjà Sonko ku ko créé Macky Sall. Mm-hmm. Macky Sall moo créé Sonko. Mm-hmm. ndax moo ko fekk fa mu ne c'est vrai que daana wax. Mm-hmm. mu fexe ba jëlee ko fa. waa ji sóobu sóobu ci politique. def ni Macky defoon maki si boppam parce que Ablaye Wade bu xataale mu dem dindi la mu amoon lépp ci charge. taxaw positionné wu nit ñi merloo meral ka jàppale ko. Sonko noonu lañ ko Macky Sall créé jëlul leçon moom ci boppam <laughs> kaam mu donc mu créé phénomène Sonko Sonko aussi euh, nekk xale. Euh, nekk koo xam ne buñ bu doon jànq da ngay wax ni dañuy jàpp ni si moom takkul si leen. donc nit ñi jàpp ni war nañu am si moom confiance surtout jeunes yi. Mhm. ñu exploiter les réseaux sociaux. Mhm. ah mu nekk phénomène te li tax gën a nekk phénomène lan la. du rek loolu parce que loolu Thierno Bocoum def na ko Thierno Alassane Sall def na ko Karen def na ko mais attaques yi <laughs> ku si nekk yaakaar ni na nga na nga doon def Idriss Seck ba mu nekkee di wax noonu nga war a def Sonko ku si nekk rek yaa am ci sa parole euh, di ko gën a may te tant que ñu gën a wax rek Sonko di gën a am. Mm-hmm. Euh, occuper l'actualité donc ñoom phénomène bi ñoom ñoo ko euh, sos. ca commencement ba ñoo ko suuxat mu dund. <laughs> fii damay bàyyi géej gi ñëw si forêt bi. Mhm. ñoo jëmbat garab gi ñoo ko suuxat ba mu màgg. donc te mën na leen la jël trop trop trop trop surtout ci diaspora bi parce que gis naa phénomène bi ni muy développé ci jeunes yi ak ni muy développé ci diaspora bi bu njëkkoon bu njëkkoon nag mag ñi Sénégal ñoo daan voté. mag ñi daan voté góor ak jigéen ñaare wañ koy wax si parrainage xam nga nit ñi xamuñu luy parrainage ba pare mënuñu sax signé far ñu bari mënuñoo signé ñoo ngi mën a yem donc loolu problème la maanaam pour ñëw ci électeurs yooyu di voté eh, sa suñuy papa suñuy maam lañ xamuñu si eh, bëgguñu ñaare duñu voté ay jeunes yenn yi nga xam ne xamuñu leen eh, moo tax ñuy indi affaire jihadiste ak naan terroriste laak yooyu pour pour nit ñi mën kaa ragal mm-hmm. or léegi bu ñu fexee bu ñu ba jeunes yi mm-hmm. am seen commencé voter à partir de xëy na révolution dina mën a dugg si mais phénomène bi moom am na. ñoo régime bi moo doon xeex benn nit fexe ko ba jëmbat garab gi ji ko jëmbat ko suuxat ko garab gi màgg commencé leen lëjal. Mhm. et te boo xefee nag bu ñu moytuwul dina leen gaañ parce que Sénégal aussi day tourner ci rythme France ñaare Sénégal day xool bu baax ci France le phénomène Macron. <laughs> yaakaar naa xaw na inspiré jeunes yi. ak cadre yu bëri ci euh, ñu jàpp ne ku mel ni Sonko. amaana bu ñu defee bu ñu deful attention mën na indi lu bees ci politique Sénégal révolutionné méthode yi. révolutionné tamit. ça a déjà euh, commencé avec sa manière. sa manière révolution yi fexe ba indi lu bees indi loo xam ne amaana ëllëg si biir dina mën a jëriñ réew mi parce que nag bu ñu fàtte ne ñi fi ne ñi si ëpp depuis Senghor ñu ngi fi. ah dañu xaw a eh, sàppi ñu baal ma ci waxin bi. Mm-hmm. mais dañu sàppi parce que boo xoolee depuis Senghor les mêmes personnes ngay gis ak les mêmes situations maanaam euh, séddalu bukki lu ñëw rek ñu akimoo def ci seen poche ñoom di di di nekk ci seen climatisation nit ñu nekk si si naaj bi cent franc di lente donc système boobu la jeunes yi euh, am conscience ak réseaux sociaux yi ak développement éducation bi aussi di changer xale yi bëgg lu bees te Sonko moo leen offrir actuellement loolu. très bien alors. euh, sociologiquement on sa s'attendre à l'émergence d'un homme comme Sonko parce que soo xoolee discours am bokkul il a plus plus axé sur des questions de bonne gouvernance la gestion du pays c'est pas des politiciens classiques yi nga xam ne moom la ñu xamoon mhm. loolu moom mooy offre gis nga boo boo delloo ci benn boroom xam-xam bu tudd Pierre Clastre bi nga xam ni dafa jàngat euh, activité politique ak pouvoir yi ni ñuy évoluer dafay wax ne bu njëkk boo dee xool société primitive yi. Mhm. soreewuñu woon ni ñuy organiser ak mala yi ni ñu doon organiser ka ëpp doole moo doon jiite. maanaam moom moo ëpp doole ñëpp <laughs> moom mooy jiite. par force même fii sax am na suñu way bi wax ni da nga daan tëdd ba guddi jóg. Mhm. jot buur ñëw euh, tëgg ndëndëm di jóg leen ku fi fanaan di jàmm. Mhm. wala nga wala nga bay sa tool ba mu pare mu ñëw ni maa ko moom. nangu sa te waaw doo ci mën dara. loolu société yu njëkk yi nee na noonu lañ doon organiser que ëpp doole. moom moo doon moom moo doon jiite. mais nee na dañ dem ba jën bi jamono ñu gis ni doole jooju nga am du luy wéy parce que da koy am tey suba doole ja wàññeeku. ñu ni kon nañu xoolaat loo xam ni moom moo gën a dëgër doole ñu ni kon ay pexe la xëy na maanaam pexe bi fii mooy pexe muus. ki nga xam ni moo ci gën a ñaw. ki ci gën a ñaw te boo dee xool pexe bi pexe jublang lay doon ko mm. donc après li ci topp nee na bi ñu jógee ca doole ca la ñu dal. mooy pexe boo xam ni ki nga xam ne dafa ñaw mën a nax nit ñi ba euh, orienté leen jël nguur gi Machiavel par exemple da koy développé ci la prince ak la ruse mm-hmm. waaw ñu ni loolu tamit dañu dem ba nga xam ne mënatul wéy comme ni doole di mënul la wéy mm-hmm. pexeek nax nit ñi mm-hmm. dañuy dem bay xam ne parce que nit ñi dañuy yeew xam ni da nga leen doon nax léegi li nga doon naxee dootul mën a dem léegi ñu ne xaaral nañu organiser ci façon boo xam ni xëy na moom moo gën a dëgër mooy nañu am loolu moom moo indi idéologie yi mhm. alors idéologie yoo xam ne dañu ne man euh, euh, société nii laa ko bëgg a organiser nii laa bëgg mu doxee mooy capitalisme ñëw communisme ñëw euh, jamono ñoo ñëw ay léninisme ay maoïsme ay anarchiste mhm. alors donc ay idéologie yu bëri juddi mais idéologie yooyu boo ko xoolee tamit lii sëñ bi doon wax naa dafa am ñu sàppi dañu dem aussi ba ba sonn ba essoufflé wu. ba parce que jëm nañ ko appliquer boo jëlee par exemple système communiste. 1917 avec la paix de Brest-Litovsk en Russie. Lénine euh, jiite euh, les troupes bolcheviques mais après bi ñu commencé appliquer daal ni nañu jël le modèle socialiste selon selon l'inspiration marxiste. Mhm. bi ñu ko doxalee Staline ñëw au pouvoir Brejnev euh, et cetera ba ci Gorbatchev. nit ñi lii mënul dox. ñu euh, nga xool système capitaliste même chose inégalité yi mu indi ci àdduna bi parce que dañu ni bu ñu ko indee xëy na nit ñi dinañu gën a am dinañu gën a dund waaye boo ko dee xool li muy indi li Cheikh Hamidou Kane di wax nee na développement nekkul ci am xaalis rek mais ni ñu koy tasaaree la hmm. bu fekkee développement ci ñenn nit la ñoom ñoo yor xaalis bi ñeneen ñi amuñu loolu développe te loolu la créé ñenn ñoo koy aakimoo ñeneen ñi duñu yor dara alors léegi nag ñu ni comme yooyu yëpp doxul nañu xaar ci nit ñi ñu indil ñu offre bu bees hmm. moom la Sonko def loolu laa la bëgg a indil historique bi loolu la. voilà donc nañu xaar ci nit ñi ñu indil ñu offre bu bees offre boo xam ne dinañ ci gis suñu bopp. alors gis nga nañu fàttali ko tuuti bi Ablaye Wade bi muy jël bi muy génn ci bi muy perte pouvoir bi en 2012. Mm-hmm. dafa amoon ñu taxawoon assise nationale dafa génne benn offre. Mm-hmm. dañ koo togg liggéey ko. bi ñu paree ñu ni kan mooy jël. offre boobu pour taxaw pour xeex contre Ablaye Wade parce que objectif bi c'était lool nañu dajale opposition yi yëpp ñu taxaw togg benn offre. jox ko kenn mu porte ko ñëpp jàppale ko mu daal di jàkkaarloog Ablaye Wade. Mm. bi ñu demee ba ci cëppaandaw la ba ca tefes ga la ñu gis ni déggoowuñu mm. parce que kii jël fii kii jaar fii Moustapha Niass jaar fële. Euh, Tanor jaar ne Tanor jaar ne le affaire yi tasaaro Macky Sall ñëw ak offre. yoonu yokkute yoonu yokkute. waaw taxaw fa rek. donc il faut bu ñu bu ñu bu ñu fàtte loolu. Mm-hmm. offre boobu parce que kuy kuy bëgg koy wax ni programme ak ay offre amul sens da nax sa bopp. Mm-hmm. ak discours amul sens da nax sa bopp. non damay fàttali Seydou Guèye kay da doon wax ne nous on nous nos termes on fait mais mais c'est saa daa yoonu yokkute mu ñëw ak yoonu yokkute. proposer ko population yi wër Sénégal. nit ñi gis ci seen bopp daan ni kii la. alors Sonko tey jii mu mel ni dafa liggéey moom tamit ci benn offre bu bees dafa xam nga boo ko dee xool sénégalais yi li ñuy jooy lu ci ëpp moom mooy suñu alal bi niñ ko yoree am na problème. xam nga déjà euh, Sonko bu ne député yi la ñuy fay impôt moo gën a néew foofu la enseignant bay fay impôt. loolu dafa nekk lu doy waar. ñu ñëw ci accord yi ay affaire pétrole affaire gaz et mu génne ci loo xam ne lu documenté la aussi. maanaam xam nga pour la bu njëkk da ngay gis koo xam ne dafay wax lu ko neex rek quoi. Euh, jéem a mais li muy wax daf koo documenté ni attaqué leen. alors terre bi ba pare défier leen. défier leen moom ne leen ku bëgg na nga ñëw débattre ak man ci dossier bi. Euh, teer bi ñu nit ñaata milliards la mu ni du loolu moom am na ay preuves yu wane ni tant ba léegi gisuma kenn ku taxaw daal di koy weddi. au-delà de de ces yu yu ndaw yooyu muy taxaw mu ni moom ci discours la ne bind livre wala bind boog ay livre daan ni sama xalaat samay solution yu may proposé ni ngi nii mm. mobiliser euh, les jeunes ñu ci bëri gis ci seen bopp mm. alors kon mu mel ne au lieu que ñu nekk ci politique di saagante di waxante lu ñaaw mm. di sànni xeer diw li mu def baaxul mooy man lii laa xalaat voilà plutôt que di nekk fii nii euh, diw dafa ñaaw kii dafa bon kële nañ ko rey moom dafa ne man lii laa xalaat gis nga loolu Almaami Souleymane Baal bi muy jiitee la mhm. la la révolution des Nianki-Torodo mhm. en 1776 au Fouta mhm. bi muy ñëw dafa indi programme dafa indi proposition te boo dee xool un peu proposition yi boo xoolee principe de gouvernance yi mu yi mu développé danga koy gis ca Sonko maanaam bon gouvernance njiit ba na mu war a taxawee réew mi ni ñu ko war a yore alalu réew mi naka lañ ko waxee nañ ko war a doxee et cetera. Hmm. donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo fi muy woo nit ñi terrain bi muy woo nit ñi. Hmm. mooy terrain xalaat. te loolu mooy politique politique boo ci génnee xalaat ay pexe yu ñuy def pour jëmale am réew kanam ci leneen nga nekk nekkatoo ci politique. alors Moustapha dama lay dugal dans le bain déjà je hmm. comprends yaa ngi nekkoon ci rédaction beeg yooyu je comprends Moustapha. mon ami qui Walfadjri alors Moustapha gis nga la stratégie de Sonko je pense que ça fait parce que depuis mu defoon grande rencontre bi. place de ba tey jii. moom mooy cible bi nga xam ne numéro un bu bu pouvoir hmm. alors conséquence da koy jox ba lui continuer à faire son travail tranquillement dem Kër Massar ak la ko faddal ak loolu yëpp continuer son travail donc ça veut dire qu'il a réussi quand même à secouer le pouvoir. d'accord maa ngi lay nuyu bu baax. di hmm. jéggalu ci tarde bi di nuyu sama mbokk yi ma fekk. Hmm. ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waxtu wii ci 2STV. alors Ousmane Sonko euh, man damay wax ne qu'on le veuille ou pas. qu'on l'accepte ou pas c'est une réalité. politique qui existe au Sénégal et li ko ko may mooy li professeur doon développé sànq c'est-à-dire que euh, d'abord euh, en méthode de ciblage j'ai l'impression que ni Ousmane Sonko très tôt dafa xam fan la jëm ak fan la war a dóoree c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui parle comme ça pour parler il a voulu parler à un public à une opinion précise il se dit peut-être une chose très simple c'est que Sénégal depuis yaa y a des gens comme le disait Assane tout yi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu ci te dañ ci ñëwaat léegi ci prébande yi ñoom ñooy bénéficier wu ci di ñu yore pouvoir gi ñooñu da nga leen di fekk ci nguuru politique gi da nga leen fekk ci économie bi danga nga leen fekk ci sëriñ si da nga leen fekk feneen feneen am ci ñu mel ne Babacar ak Pape Alé ak man ak Assane ñoo xam ne peut-être ay sénégalais lañ di fay l'impôt comme euh, sénégalais yëpp mais depuis 1960 il se pose un question très simple mooy ñoom lan la leen seen réew jariñ en réalité question bu simple la ñu la ñuy posé lan lay jëriñ ñeen ñi dañ naan la wéy Sénégal moo la jàngal école ba nga feebaree moo la faj et cetera mais tu te dis et après Sonko nous dit quelque chose de très simple. Mm-hmm. moo di ne man je une chose bu yomb mooy li nga xam ne moom la Sénégalais yi di produire ñun ñëpp ñu séddoo ko. c' est ce qu'il dit. et c'est pas que buñ ko capturer. ñëpp ñu yem ci ko capturer ñun ñëpp ñu mën ci am accès mais boo xoolee Sénégal ni muy doxee et je crois que Khadim Samb l'avait dit une fois sur ce même plateau. Mm-hmm. en parlant de football mu doon wax ne li ko jaaxal mooy footballu Sénégal depuis 1960 ba léegi les mêmes têtes ñoo fay nekk di remplacer te di remplacer mm-hmm. ñun aussi Sénégal dafa mel ne dafa am une famille de gauche une famille de droite ñoom ñooy remplacer ci pouvoir bi. depuis euh, Senghor Senghor pare jox Abdou Diouf les mêmes ñoo fi des Abdou Diouf pare jox Abdoulaye Wade mu renouveler un peu ak sa famille Abdoulaye Wade pare ñëw jox Macky Sall mu boole ñi nga xam ne depuis 1960 ñoo ñu teg lu ñu naqari ci àdduna mu boole leen def leen ci génn guur ànd ak ñoom. mooy ñan mooy Moustapha Niass mooy Ousmane Tanor Dieng. mooy ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Ousmane Sonko ñëw ne yow mi nga xam ne yow yaa dëkk ca. Euh, dëkk ba ca àll ba yow mi nga xam ne yaa dëkk ci biir ndakaaru te 1960 ba léegi ñii ñi ngi yor nguur gi di ci euh, euh, kuy ku aaya tey bu subaa nga jox sa borom te gisu leen gisu leen seen bopp nañu ñëw ñun ñëpp ñu aayandoo Mhm. c'est ce qu'il dit man noonu laa comprendre ñun ñëpp ñu aayandoo mooy du man usman man maay incarné réew mi ne maa man lépp man maa ko yore man maa koy changé mais su ngeen ma ko dénkee ma bokk kook yéen ñu changé ko mais loolu dafa bari ay jeunes yu bari dañ ci gis seen bopp mhm. te dafa am benn phénomène boo xam ne je dis également que c'est une réalité soo xoolee tey dans les réseaux sociaux parce que ñun ñëpp je dis que la majorité des Sénégalais tey en tout cas les plus jeunes ñi ngi ci réseaux sociaux yi fa la fanaan fa la yenn uhuh. soo ko xoolee tey mënoo bañ ne Sénégalais yu baree baree bari tey di Ousmane Sonko def gis nañ seen bopp uhuh. dama gis sama benn rakk ma ko mais yow mosuma la gis nga wax ci wàllu politique yooyu j'ai vu yi da ngay WhatsApp Ousmane Sonko tout le temps mu ne parce que moo xew <laughs> je me retrouve ci li muy def alors la difficulté comme mm. ça il a progressé ñu ñun ñu wañ ko ñu bañ ko nangu il a progressé maintenant ce qu'il faut faire mooy maintenant pour capitaliser pour transformer l'essai comme ni ñu koy waxee ci rugby mm-hmm. fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy gis bopp seen bopp si yoon yëpp ñooñu ñu transformer ay électeurs et s'il le fait c'est un danger pour n'importe quel pouvoir mm. alors son discours son discours Babacar mm-hmm. c'est toujours contre le système ni ko Moustapha waxee mm-hmm. ci jàngat bu xóot bu mu def c'est le système et système bi muy wax c'est les mêmes personnes qui sont là. c'est vrai c'est vrai parce que mmh. Ousmane. c'est le même système c'est, c'est les mêmes personnes boo xoolee. aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale moo bâtir système u Senghor. bien sûr moo nekkoon directeur cabinet Senghor. ba Macky di am 9 ans. ah donc loolu c' est des faits c' est des réalités. c' est le même système moom moo bâtir bu Abdou Diouf. non non Tanor sax ñam na bu Senghor <laughs> ñam na bu Abdou Diouf d' ailleurs d' pour la affaiblir la la ñu wax euh, oui c' est c' est on donne pas un pays à un enfant aventurier. <laughs> dafa am dafa am foo xamee ni. <laughs> Uh-huh. fa la Moustapha jeexale ma koy nuyu d' uh-huh. euh, foofu dafa am benn parenthèse mu siy génn xam nga politique dafa doy waar. Uh-huh. man am naa sañ-sañ daal di xalaat ni ñoom. xalaatuñu woon ni euh, phénomène Sonko dina am. ba mm-hmm. benn moment et ils fait exprès ah dañoo jox doole Ousmane Sonko à ak majorité parce que dañoo amoon tendance. Mm-hmm. écarter des autres opposants xam nga li nga xam ni moo amoon 2007. Mm-hmm. c'est élection Ablaye Wade nga xam ni il est passé au premier tour Idrissa Seck nekkoon deuxième. ñoom bi Sonko di commencé jóg ñu xam ni jeunes topp nañ ko. xalaatoon nañ ni Sonko bu ñu ko mayee buzz pouvoir bi laa wax de yokk ko doole dinañ ko génne ci position boo xamee ni dina sonal opposition bi mais du mën a dab Macky sal loolu stratégie la boo xam ni un peu machiavélique c'est vrai mais que pouvoir bi def ci Ousmane Sonko mais malheureusement pour eux dañoo dem ba ci biir Sonko ëpp leen doole. <laughs> parce que au début affaire aux réseaux sociaux lañ doon wax. ñu demati deuxième étape mu romb réseaux sociaux euh, nekk nekk réalité. mais léegi nag phénomène la c'est un phénomène pour ñaari affaire yoo xam ne benn bi dama ciy fekk si. à lui seul il a rempli. Euh... mais c'est ça. Euh, et puis moi j'étais là-bas. Hein? mais li ma gën a frappé. mooy y a beaucoup de volontaires. Mm -hmm. mais par exemple il y beaucoup de volontaires Sonko. ay jeunes parce que li mu li mu bi ñoom ñoo ay ay jeunes étudiants ñoo yor organisation voilà. li muy incarné la jeunesse bi muy incarné du point de vue de son âge. Mm -hmm. relativement jeune. mais beneen affaire bi aussi mooy ni mu génne la. le style. léegi sénégalais yi dañoo gis parce que discours bi rek Sonko dafa weesu discours ah. xam nga li muy wax nii tout le monde peut le dire ah, ñëpp waxoon nañ ko. Macky Sall waxoon na ko. Mhm. donc ñoo ñoom ñoo ko dàqoon a wax. Mhm. mais pourquoi moom discours am daal di capter plus que les autres. parce que tout simplement fi mu jaar la sénégalais yi en tout cas ñi ko topp wala ñu ëpp sénégalais dañoo yaakaar ni Sonko bu ñu ko dénkee seen alal dina ko mën a gérer. Mhm, tout simplement la grande parce que ni ma gisee ñu analyser yëpp kon dañoo d'accord ni am na échec. si ñi nga xam ne ñoo jiitu Ousmane Sonko en tout cas en tout cas si classe politique bi jiitu loolu analyse yëpp wane na ko que ni échec dafa am président Macky Sall bi nga xam ne yaakaar amoon na si moom gis nañ ni échec am na si côté boobu mm. gisuñu révolte wala révolution bi ñu doon xaar si moom mm. mu changé mbir yi demeewul noonu donc continuité la def si mm-hmm. yu bëri ci lu baax comme ci li nga xam ne aussi safan bi la mm-hmm. continuité la def mais Ousmane Sonko dafa am chance bokk woon ci dualité PS PDS parce que ñi fi démembrement yi nga gis yëpp PS lañu jógee wala PDS. et excroissance rek la. moom nag <laughs> am na chance ci parcours bi ñu xam ci moom ci politique. Mhm. nekk loon ci parti yooyu maanaam muule wuñ ko ci parti yooyu ni ñu doon doxee donc am na originalité bi muy incarné génn également au niveau des impôts et domaines ci lan dénoncé dénoncé ba ñu génne ko ci jub. assemblée nationale 5 millions yi ngeen bëggoon joxe wala 20 millions yi di dénoncer ba sénégalais yi gëm ni léegi kii Ousmane Sonko nit ku jub la en tout cas loolu ilaa a réussi ancré ko ci esprit sénégalais yi nit ku jub la ku ko dénk sa réew mu géré loolu am na réussite beneen bi jeunesse bi lay tax et puis il les a défiés fois ouais. parce que danañ dégg moom ba coow li bare mu ne Macky Sall yor nga sa crédit bu la neexee nga woo ma bu buñ ma gisalee lépp li nañ jël dëgg la il les a défiés plusieurs fois mais njub boobu njub boobu mu wane parce que bu ñu amoon leneen ci moom même bu dul ni ñu def xalifa Sall lañ koy def wala yooyu mais di nga gis quand même ñu dénoncé ko au niveau de la presse. Mhm. essayé nañu ba temps yi seen commencé na si mooy que ni ñu ngi dugg si si débat boo xam ne dugg ci attaque amul benn sens. mais beneen mbir mi mooy jeunesse bi te gis nga Ousmane Sonko euh, ak Pastef ils sont très xam nga moom il est jeune de sur le terrain waaye ñi ko wër barki démb damay waxtaan ak seen benn xarit boo xam ne moo ko représenté Allemagne Abdou Diatta le gars euh, il gérait 26 pays pour Karim Wade. en Europe aujourd'hui moo représenté Sonko dans un seul pays Allemagne quelqu'un koo xam ni professeur d'université la qui a un vécu mm-hmm. mais am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ña nga xam ni ñu ngi wër moom parce que mouvement li ci am politique mooy au fur et à mesure ngay dem da am benn bés boo xam ni ay personnalité dañuy ñëw récupérer mouvement bi mm-hmm. te nee nañ ma sax en fait Ousmane Sonko ay nit ñoo ko imposé mm-hmm. beneen mbir mi organisation bi may wax ba léegi xoolal cotisation yi mais tëboo rek benn jour daal di dégg ni États-Unis jox lañ ko 5 millions comme ça Europe ñu jox ko lan ay 42 mille euh, euros. Mm-hmm. parce que dañoo am benn concept bu ñuy doxee ban ban leader de parti nga gis ay militants di cotiser. amul d'ailleurs pour bu ñuy ñëw si Ablaye Wade mi ngi noonu. il est le seul il est au début et la fin de tout le monde. de mm. tout Ousmane Sonko les gens ils cotisent di wane ni bokk nañ ci ça veut dire quoi ëllëg bu loolu demee ba dox mooy ëllëg ay militants dañ koy demander des comptes. Mm. fii nag amul benn leader booy demander ay compte mhm. alors très bien euh, Assane est-ce que vous pensez que dina mën a capitaliser kii bi parce que sa aussi c'est un autre défi comme mhm. l'a dit Moustapha xam nga effet de bulle médiatique mën na am mhm. très effet de bulle médiatique tu es à la une de tous les journaux parce que même si tu ne parles pas d'autres t'insultes forcément tu es à la une des journaux Absolument. donc est-ce que on peut gérer bulle médiatique boobu très euh, du yomb yomb euh, ci kaw bul def Euh, yombul si nit euh, bul def erreur ensuite dafa am le Sénégal Sénégal lu ñuy wax benn sociologie politique bu si am mhm. ay réalité politique euh, par exemple wax ngeen comme wax ngeen ko sànq cotisation bi nit ñi bu campagne électorale da euh, commencé dëgg ba takarnaase dañ koy def traite xam nga mhm. traite gerte mhm. bu jotee nga nga bëgg di ci feesal sa poche am ci dara politique bi dañuy bëgg di ci am dara dafa bokk ci suñu sociologie politique. Mm-hmm. maanaam tey boo def campagne boo nee asalaamaaleykum ñu ne lu mu indi ak mm-hmm. wala loo fi bay ah mooy loolu. Mm-hmm. <laughs> asalaamaaleykum ah ñëw na kat gan gi ñëw na waaye lu mu fi bàyyi. pour que ëllëg ñu mën see régler lii régler si courant bi régler si kii amoon nañ problème saako ceeb gaz bi jeex na. ah foog nga ne loolu mën na ko handicapé. si bu baax xam nga dafa am benn affaire boo am si réalité politique bu Sénégal. mooy buñ la tàccoo. ñi lay tàcc noonu defal attention parce que bis bu vote bi jigéñee des deux jours trois jours ñu si bëri dañuy changer seen kanam fas ka dañ koy fas ay ay réalité politique la yoo xam ni ñu bëri du ci def attention parce que leader yu bëri trompé na leen ah bari na leader yu ñu tàcc si ay meeting tàcc yu kii bañ ni fii moom mokk na donc comme noonu ñu koy waxee fii mokk na waaye gis nga bu élection ñëwee si ngay waaru si àddina dal na Ablaye Wade dal na Ablaye Wade si deuxième ci kii yem bi mu kii ak Macky Sall am na zone yoo xam ni ku ko waxoon nii di nga fa perte dafay wat ni mënta nekk d'ailleurs am na bi élection yi passé am na ñoo xam ne bi ñu demee di seet Ablaye Wade da leen dàq ne leen yéen du ngeen dara c'est ay kilifa donc dafay wane ni il faut ñu jéem a capitaliser loolu xam nga sànq sama biir wax bi dama ni jeunes yi il faut ñu wuti ay carte électeur jeunes yi li mag ñi nekkoon ay électeurs yu mag il faut que jeunes yi nekk ay électeurs yu mag. parce que réew mi il faut que ñu jox leen seen i carte waaw ah, parce que primo <laughs> d'accord xam nga ah, ah, ah bindu nañu. <laughs> problème bi. booy jeunes yi da ngay yi bindu nañ mm. deuxième problème bi soo xool primo votant yi ñu bëree bari jotuñu wax nañ ko. man waxuma man ko je reprends le rapport de la Sénat. Mm-hmm. qui dit qu'on a empêché à un million deux cent comme un million trois cent de personnes d'avoir leur carte d'avoir carte moo ko wax dans son rapport il faut nit ñi jot seeni carte il faut que leader politique yu bees yi ñi nga xam dañu am si ñoom yaakaar ñuy doser les politique politiques bañ révolution bi warul total il faut que ñu jël expérience ci ni système bi daan doxe yenn saa yi ñuy ànd ak système bi si nit ñi bu ñu amee seen soxla ñu lay gis waxuma sax nga am alal joo jox mais quand même dëj yi ngénte yi ak seeni soxla nga wane ak yëg gu amat sëkk. bañ a aj passage ñu koy jaale ñun ñëpp ah. waaw Marème euh, Marème euh, Sagna effectivement qui est décédée. absolument moo nekkoon levée du corps am à 15h. macha allah yal na ko yàlla yërëm. donc ñu yooyu yëpp il faut ñu ciy jël exemple. ñu bañ a raxas système bi. ñooñu ñooñu doon def Macky Sall profité na bu baax ci système bi bi mu bi mu nekkee candidat donc il faut que ñoom tamit ñuy doosee système yi pour mën a satisfaire euh, mag ñi aussi yenn électeurs yi nga xamante ni xëy na ànduñoo ñoom si mouvement bi. très bien ñu bañ a fexe aussi bañu def erreur communication. Euh, waaw euh, loolu surtout accident làmmiñ. <laughs> alors <laughs> ñu ñu dem rek ñu seetaan les attaques parce que yéen a koy wax léegi. je pense que attaque d' yu ñu koy def moom personnellement Ousmane ko attaque yi ñu koy def après de manière globale ñu mën a waxtaanee vraiment suñu niveau démocratie. Hmm. war nañ ko mën a yéegal. Euh, je crois alors on va dama ci jël ay deux trois personnes rek yoo xam ne def nañ ay attaques ngeen déglu ko après ñu dellu ci plateau mu toog Mermoz bàyyi ma ak ñoom Sonko ci Dakar ak ci banlieue bi fu ma taseeg ñoom danaa leen duma moom loolu laay wax fu ma taseeg ñoom danañ ma abal ndax yoon wi danañ ma ko abal fu ma jaar danañ ma abal yoon wi ñoom loolu laa wax muy lu leer. réew mi kenn du ko foyee doo dem lekk ci régime bi ba say kol fees fukki at ak juróom ngay jël ay fonds muy ay xaalis bu dul jeex ba pare nga ni man mosuma lekk benn dërëm fonds commun lan la ku mënta lekk kay ni 10 millions lañuy ñuy tuñeel waa waa assemblée la joxee fonds commun kay waroo ko jël beneen bi ngeen war koo laaj fukki at ak juróom solde boo ko seetee cumulu soldu inspecteur bi mu nekkoon tey doog a génne mënta jënd këruk cent cinquante deux cent millions lu mu doon dunde ak njabootam loolu moo ma laaj beneen bi nee na am na xaalis tuuti bi mu fi bàyyee administration yan marché la am ba am xaalis ak ñu ko fay xaalis boobu loolu moo ko mat a laaj bu mu nax nit ñi bu mu nax nit ñi moom ci boppam gënul ñi fi ne inspecteur yu ko mën fuuf gën koo honnête ñoo fi ne kon bu mu jël nit ñëpp ni régime bi régime bu dee régime moo moo dundal gars yi moo ko dundal moo dundal patron bu Ndiaye ndax moo doon patron Abdoulaye Seck Sadaga nee na tase ak moom kër Macky sàll muy wut intervention tontoogu ci na tontu ci loolu. moom na ko parce que UMS bi mu bokkoon association yoo xam ne bokk na ci depuis université. ak mu mu yi ñëpp ak ñu ca jógee. ñun xam nañ leen xam nañ ne ñooñu ñooy salafiste par excellence. salafiste nag ak Daesh mu ñu mel ni nga ne colis posto. ne colis piégé. Mhm. lépp colis la. Mhm. moom danay dem Touba mais bu demee Touba ca salafiste lay dem mooy borom sooroor yu gàtt yi. biñ ñu jógee nag di gëstu ay mbiram am na fii yi ma lay wax yépp mu ngi ci YouTube mën ngeen cee dem benn bi mooy bi mu dalee dajalee seen jigéen ñi. bañ dajee dafa leen li ma leen di woo xeex la xeex ba doxal àddina waxuñ senegal de mm-hmm. xeex ba doxal àddina waxi Ousmane Sonko la du waxi amee Niass mm-hmm. Ahmed Niass kay dafa dox ba yegg ci tilt xeex ba du dexal àddina loolu mooy slogan wu Daesh su nekkee ñoom la Daesh di wax ci arab moom lay wax ci olof te ñun ñu dégg euh, xam arab ya xam wolof ya war nañoo won nit ñi ni benn la Ousmane Sonko li mu waroon am mooy fan la jëlee xaalis bi nga xamante ni moom la nekk di politique parce que fonctionnaire yi ñoom ñoo yor suñu koom-koomu réew fonctionnaire yi ñoom ñooy jëmale suñu réew kanam mais fonctionnaire bu amee xaalis lu Ousmane Sonko mësuñu ko gis te for nañu si wéru bay ni dafa am ñoo xam ne ay islamiste la ñu nekk si ginnaaw ñoo xamante ni ñoo koy jox koppar ngir ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine ñu nekk suñu réew ñu bañ leen wekk ñu bañ leen naw muy Sëriñ Tuubaa muy Maam Alaaji Maalik muy même ñi nga xamante ni mooy jàmbur ñooñu nag dootuñu leen mayee ci dara. une réaction. waaw euh, naan euh, débat bi defe naa waroon du war na dépasser. waaw waaw du lii en fait man man li ma gis mooy euh, il faut que nit ñi bu fekkee ne da nga bëgg a kenn koo xam ne dafa indi programme da ngay indi sa programme yow teg loolu foofu la débat bi ne. Mhm. alors je crois que fi nga xam ne moom mooy réorganisation. bi Macky ak ñi mu àndal war a def. mooy fi ñu jëm nii ñoom dafa am lu ñu proposé woon sénégale yi ñu ànd ceeg ñoom waaw léegi yow yaay wax Sénégalais yi fan laa toll ci li ma leen proposé woon ci jëf ji ma koy def ci ci ci ci hmm. pratique quotidienne lool loolu moom mooy seen position leneen loo ci def rek nit ñi dinañoo gis nga euh, Ablaye Wade 2000 2012. amoon na doole Assane Assane wax na ko organisé na fii benn meeting daal ni am na. plus de mu ne mu daje na ak moom côté Jet d'eau. mu yor oto bu ndaw mu yor oto bu ndaw euh, ko Macky boobu moo gagné les mm-hmm. élections mm-hmm. gis bu mm-hmm. fekkoon xaalis bi kese mais kon Diouf du fi jóge kon Wade du fi jóge joxe nañ ko. je veux dire que offre politique bi ma doon wax sànq dafa am solo maanaam li nga xam ne moom ngay proposer nit ñi ñu déglu la. parce que toll nañu foofu ngay wax nit ñi. ñu déglu la nit ñi tamit di la natt. Mm-hmm. heureusement heureusement am na ci actuellement parti yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci loolu. Mm-hmm. dernièrement dégg naa Idrissa Seck mu dajale ay cadres am mm-hmm. ñu dem def naa. au niveau de la Sali di travailler sur un programme. te paraît-il qu'il va même lancer un programme. voilà va proposer un programme tout court loolu c'est important. Euh, je crois que autour de Macky je crois que loolu moom mooy wax ji. naka la mobiliser ces cadres gis nga actuellement nii parti bu fekkee ne dañoo am cellule de cadre léegi nag lañ leen interpeller bu fekkee dañu am cellule de sage. léegi lañ leen interpellé bu fekkee dañu am école de parti. wala mhm. université du parti léegi lañ leen soxla. ñu travailler ci ay programme communiqué ak population bi ñoom fi ñu leen di xaar ci communication mooy lii la ñu def boobu ba léegi par rapport ak yoonu yoo ko teg plan Sénégal émergent bi ñu leen proposé woon ñeneen ñi fi ñu leen di xaar mooy ñun offre alternative bii la ñu def et je crois que son ci loolu la liggéey ki mhm. fekk yow fekkee ne kooku mi liggéey ci offre bind livre ñëw wax nit man fii laa toll yow nga ko wayu nga euh, bandi nga et cetera et cetera maanaam yow da ngay wàññi sa bopp quoi en fait donc fi mu fi mu toll nii fi ñuy xaar euh, débat bi gis nga euh, Papa Alé politique dafa am importance man dama bëgg ñuy respecter politicien mhm. contrairement à ce que ñu bëri di wax naan politique politiciens yi mhm. tekkiwuñu dara non politicien bu nekkul woon ci réew musiba am mhm. nit ñi bu ñu deful woon politique dañuy rayante donc ki nga xam ne mi ngi ci arène politique ku important la pour communauté bi bu ñu bu ñu bu ñu nekkul woon dañ doon wax ay programme di échanger ay programme ay reyante la ñuy def de. donc politicien dafa am solo. mais politicien boobu li nga xam ne moom moo ko gën a jox am jox euh, maxaama ci pénc mi mooy dafa am ñëw indi ay proposition yu muy defar pour que pénc bi gën a jëm kanam ci seen dund boobu léegi mais par contre bu fekkee ne politicien dafa bëgg a ñëw xalaat ni bu ma utiliser xaalis dinaa ci mën a génn bu ma utiliser ruse moom laal la doon wax sax mm. ne la loolu lañ doon def mm. mais on s'est rendu compte loolu du bu ma ñëwee bëgg jaar ci ay sëriñ Euh, pour ñu ñu jàppale ma dinaa ci mën a génn loolu du dëgg-dëgg politique politique mooy amal sa offre nii laa gisee réew mi nii la doxee boobu ba léegi yaakaar naa ni boo leen ma ko joxee dinaa jaar yoon bi ba pare nag nga am ay actionnaires yu ànd ak yow alors li may wax actionnaire moom mooy bu ñu ne ñoo xam ne dañoo ñëw bokk ci parti bi di joxe cotisation ñooñu ay actionnaires lañu. ay actionnaire lañu dafa mel ni da ngeen a am société. Mhm. entreprise ñoom ñu am ci action. Mhm. donc dinañu vérifier seen action fan la toll. loolu c'est très important or ñun boobu léegi ni ñu doon xaw a defee politique mooy dafay am benn constante ak ay variable mhm. donc amul actionnaire. kenn moom mooy wax mooy buur mooy bummi. donc il faut que données yooyu changer il faut que parti politique yi actuellement seen cellule de cadre yi ñu liggéey loo leen vraiment seen système seen cadre de communication communication dafa am solo ñu liggéey loo leen vraiment autour d'une offre wax ak sénégalais yi ci offre boobu mais ay yenn yi ay boo di wax yi yooyu noonu franchement c'est trop je pense c'est trop terre à terre xaxar xaxar laa koy wooyee de xaxar kii ñëw wax la programme ne la vision solution yow nga koy wax salafiste euh, mais et puis moi je dis que est ce que ku fay déposé ko da doon taril Fatia. ñoom ñoo koy déedéet <laughs> doo taril <laughs> Fatia doo doo wax au nom du xam nga Pape li lii nii da je crois dafay euh, confirmer li Babacar doon wax sànq mu di ne euh, dafa mekk mbir boo xam ne xëy na daf ne xës seen kaw xamatuñu ban côté lañ koy jàppee. Hmm. xam nga boo jëmee ci arène war a bëree entraîné que bëree que euh, nu ñu koy waxee yaaw jaal ñi finalement nga dal ci Balla Gaye di am problème pour xam ban côté ngay jaar <laughs> donc effectivement les gens ont pour xam nan la ñuy appréhender. en réalité le le, le phénomène Sonko. Euh, loolu je crois que mu expliquer euh, d'autant plus que quand tu un peu boo xoolee mu ngi wax actionnaire moom euh, professeur Djibi mhm. soo xoolee ñi nga xam ne ñoo bokk daal le parti de Sonko waxuma les militants yi nga xam ne ils sont un peu partout mën nga ci retrouver léegi mhm. mais man dama ci gëstu un peu ñan nga ciy fekk. Mhm. des inspecteurs des impôts. des avocats. des médecins j'en connais un très brillant médecin de l'hôpital Fann mhm. bu boo xam ne keroog bi mu ne ma euh, suñu parti bi dama ma ne ko mais man su ma defee émission ah. soo kooku uh-huh. bi nga invité woon démb non non c'est très ah, m'a dit bi moo euh, mooy laaj ko mais ban parti mu ne ma Pastef ma ne ko mais man je n'ai jamais su mu ne ma non euh, bokk naa ci temps yi mais parce que je trouve que le gars il est sérieux c'est c'est comme ça qu'il me dit je trouve que le gars il est sérieux alors un phénomène comme ça ñëw jékki-jékki taxaw les gens ils cherchent lañ koy attaquer <laughs> mais li professeur Djibi wax mooy euh, euh, il faudrait que le parti au pouvoir s'organise pour xam ban côté la ñuy attaquer le gars mais ay attaques la yoo xam ne finalement Sonko daf koy def nii rek mu jàll. Mm-hmm. Euh, dañuy wax la fortune de Sonko. Moustapha Cissé loolu lan la wax sànq mënoo jariñoo ci système bi ba pare ne système bi baaxul cela veut dire quoi que ni ñoom politique li ñu bëgg mooy wax ne finalement ñëpp a yam te bu ñëpp yamee ñu bari gedd seen seen cër mhm. Sonko veut leur prouver que ne moom moo mook ñoom yamuñu un deuxièmement ñu ne euh, Sonko salafiste la Sonko euh, ay organisation islami islamiste ñoo bokk ci ñoo nekk ci ginnaawam mhm. ñi ngay wax noonu waxuñu ko pour wax ne Sonko dafa dangereux nañ ko ragal ak non non dañ koy wax parce que ils ils veulent mettre dans la tête des Sénégalais que ni Sonko dafa contre li nga xam ne ñun moom lañ yaakaar ne mooy suñu force diine jusqu'ici muy tarixa yi et loolu c'est pas nouveau au Sénégal man ça m'a beaucoup amusé fan yi ma liir euh, un de la confrères là Thierno Diop de Dakaractu mu publier sur sa page Facebook des extraits du livre de Mamadou Dia bi Mamadou Dia tuddee Afrique euh, le ah prix de la liberté bu mm-hmm. Mamadou Dia doon expliquer avant décembre 2002 nan lañ ko préparé tasaare pour boole ko ak sëriñ si mm. jaxase ko ak sëriñ si dem wax sëriñ Fallou Mbacké ni ko kii dafa bëgg a daaneel sa sa sa sa sa sa sa sa xilaafa dem sëriñ Seydou Nourou Tall wax ko lu ni mel dem ci eh, El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass wax ko lu ko xam ak complicité français yi ne leen dafa bëgg a créer benn conseil islamique boo xam ne bis bu ko créer mhm. seen tarixa yi lay daaneel mhm. euh, euh, euh, loolu moo indi sax ba ba may problème avec Léopold Sédar Senghor il n'a nga gis tey moo di ne même angle d'attaque bi la ñu utiliser contre euh, Sonko moo tax Sonko il a tellement bien compris que ne fan yi da ngay dégg muy expliquer nan la bokke moom ak la famille de euh, Serigne Rawaan Ngom bu Paal nan la bokke ak waaw waa Thiénaba et cetera pour rassurer un peu mhm. que nekku fi moom pour mener une guerre contre euh, les les des tarixa wala mais nag bu ñu fàtte mukk ne liñ doon wax sànq le système ñi ci profité wax naa ko sànq c' pas que les politiques daf ci bëree bëree bëri ñoo xam ne c' est des marabouts je dis pas que euh, Mamadou Diallo di d' ailleurs euh, terme bu ma neex la wax dans son livre là mu ne ñu ñu tuddee les grands marabouts mm-hmm. ñi ñu tuddee les grands marabouts au Sénégal du ñoom ñooy jariñu en réalité ci système bi mm-hmm. mais dafa am autour de mm-hmm. tout un monde boo xam ne le système tant que mi ngi mel ni mel ni daf leen arrangé parce que gars yi Serigne Mansour du am euh, mafio démocratie u quelque comme ça ne gis nga tey euh, daf ci bari ci suñu classe politique bi ñoo xam ne tey dañoo am ay di relation ak euh, la classe boutique mm. souvent bu ñu demee ñooñu ñu tuddee ñun sëriñ su ndaw seeg yooyu mm. ñooñu ñooy profité ci mm. système bi ñi muy demee soo ko ne man si je prends le pouvoir ce système là dama koy casser cela veut dire quoi que ni comme li Mamadou Dia doon wax en 62 que ni su may lebal sëriñ yi parce que ci livre am koy wax ne su may lebal sëriñ si damay lebal ñi nga xam ne suñu bayee dañuy fay ay ay faykat lañ mu tudd ci Serigne fàllu Mbacké ne kenn gënu ko sérieux ci koo xam ne bu ko nguur gi joxee mu bay delloo nguur gi lim ko jox. Mhm. mais daf ci bari ñoo xam ne tey jii le compte cas de xaw ma nga mhm. xaw ma lan ñun ñu bari dégg fekke wuñ ko mais dégg nañ ko. comme combien de marabu ñoo ci bénéficier ba pare ba léegi kenn xamul fan la xaalis boobu jar eh, fan la xaalis boobu jar alors bari na ci ñoo xam ne tey jii benn waaye daf ko wax keroog maa ngi jéggul di ko nett li ni mu ko waxee daf ne Sonko cuuraayu dëmm la. bu bu tàkkee rek dëmm yi commencé jëf ñëpp di wax pour dire simplement que ni dafa bari ñoo xam ne pour dire simplement que ni. dafa l'a dit sur pour dire dafa bari ñoo xam ne tey jii dañoo baree bari. ci politique ñi ci ndaw ñi ci sëriñ si ñoo xam ne système bi. la bañ ko ko laal parce que bu ñu ko laalee seen affaire yàqu. alors bu ñu sentir ne Sonko c'est une menace. Mm. forcément dañuy génn naan Sonko Daesh la bokk ak Sonko salafiste la mais peu importe tey jii. benn waaye wax na ma ko bërki démb ma ne ko sëñ bi boo deful daal wax nga dëgg de mu ne ma bari na fi ñuy attaqué Sonko naan dafa contre Serigne si ak nangam ak nangam bu Seydi Hadj Malick si del si woon ci àdduna wari Serigne Touba ni Sonko taxawee moo leen di gënal ñoom ni ñu taxawee. Hmm. est-ce <laughs> que parce que na lu mu mus a def am a def te bari ñoo xam ne na ma yàlla baal aale. seen yoon nekku ci. voilà seen muy wax aussi si affaire Mamadou Dia. xam nga ñëpp xam nañu ba léegi système bi la ah. boo xoolee Sonko a diabolisé Mamadou Dia boo xoolee ne day yi nga xam ne affairiste des mhm. nga xam ne dañ doon nekk assemblée mais yoroon yoroon yeneen business ba léegi xam nga moo am mhm. yoreen yeneen business Mamadou Dia di xeex ak ñoom mhm. di dindi business boobu ñu amoon banque yi doon leb ak tout ça dindi ko ñu commencé braqué wu d'ailleurs Senghor ñoom la utiliser assemblée après pour euh, daaneel daaneel du Dia donc boo gisee Mamadou Dia euh, euh, Sonko d'ailleurs citation yu bëri Mamadou Dia lay wax mais foofu la ma fay yokk rek mooy que ni xam nga Sonko fi mu nekk nii li tax mu gën a nekk danger li tax mu gën a nekk danger il est en train de créer beneen pôle xam nga boo déggoon ñoom ñëpp ñu naan la président Macky Sall day gagné dañoo yaakaaroon ni trois pôles ya nga xam ni dans les élections sénégalaises il faut trois pôles yu solides ci opposition pour mën a daaneel Ablaye Wade looloo taxoon mu jàlloon au premier tour en 2007. Mhm. gis nga trois euh, trois pôles yooyu ñu ngi commencé constituer te c'est une menace pour pour pour Macky Sall parce que fi mu nekk nii boo xoolee sa Seck rek daanaka ak akul itam yëpp benn pôle la. Mhm. gis nga xalifa Sall ak Karim Wade ñu dem élection ñu ñàkk a dem ah. danañ bokk pôle la pôle la. léegi nag troisième pole boobu nga xam ne amul woon ba waa Macky Sall di fecc léegi Sonko est en train de créer un troisième pôle. parce que boo xoolee euh, dafa am jàngat bu ñuy am benn cas d'école ci élection yi di ñëw bu njëkk ba da ngay gis 30 pour cent 20 pour cent euh, après ñu yóbbu waa ji waa ji deuxième tour ñu yóbbu ko Abdou. léegi nag mi ngi mel ni rek ngeen di ngeen di match football léegi Macky Sall daal di am 50 000 ñu ne 50 000 francs la ñu laaj Macky Sall mooy 50 pour cent opposant yi ñu laaj leen 50 50 000 bu njëkk ba ku am doole day ñëw joxe 25 000. Mm-hmm. comme Ablaye Wade en 2000 kiy joxe léegi nag. cotisation opposition bi ay mille francs la ak 500. moo nar a fragmenté mais dañoo bëri dañoo bëri ba nga xam ni man boo leen jalee mën nañoo mat cinquante mille francs mm-hmm. te loolu c'est un cas d'école ci élection Sénégal boo xam ni masul woon am moo tax ñoom seen analyse yëpp dañ naan trois pôles yooyu du am pour yóbbu Macky Sall au deuxième tour léegi nag Sonko avec son dynamisme ak nit ñi ko wër surtout jeunesse bi parce que jeunesse nag ku leen am am nga lépp mm-hmm. te loolu le président Macky Sall foofu la amee fay au niveau de la jeunesse de son parti et également dans la manière yi muy gérer wax ngeen fi Moustapha Niass. et puis beaucoup de jeunes lu ñu koy reproché dañ koy wax na ko il ne s'entoure que de vieux. mais ñan ñoo tontu. man xam nga xam nga bi nga tegee image yi man dama doon xool ñan ñooy tontu parce que nag. Euh, le professeur wax na ko nañu organiser wu les cadres ak ñi nga xam ne ñoo war a tontu. APR xanaa amul ay nit yu am maanaa yoo xam ne bu ñu waxee ñëpp dañu leen di mais est-ce que mais là hmm? c'est là même où où je dis sax tontu Sonko. Mm. par exemple c'est la question que je me pose. Mm. Mm. man dama ne woon su ma nekkoon APR man. Sonko def li muy def nii mu siiw. Euh, buñ ma laajee dama ne c'est une très bonne chose pour la démocratie ça enrichit notre démocratie. pour le débat di yem ci. am na sañ-sañ. ne dama bëgg réew mi. nii mooy sama gis-gis. Mm-hmm. te même système bi ñu doon keneen doon def Macky Sall. mais loolu moom mooy politique. oui te même système bi ñu doon def Macky Sall. en 2012 hmm? ko au niveau du commissariat central. bañ naan ay blanchiment d'argent ah, mais xam na ni amuñu peut-être fu ñu ko mën a jàppee mais ñoom ñi ngi réagir comme ni PDS doon réagir si président Macky Sall donc aujourd'hui ñi ngi enfoncé seen bopp parce que am na tontu yoo xamee ni li tax ma naan la jeune c'est important parce que Ousmane Sonko jeunes yi ni ñu ko toppee dafa bëri te président Macky Sall amul politique de jeunesse bu fekkee am na mal boo xam ni daf ko bokk ak du Diouf bokk ak Ablaye Wade mooy chômage bi mais dafa am nag lu gën a poussé si moom maanaam deful promotion jeunes yi. wala contrairement à euh, Wade. non wala à la limite lay jël. excusez-moi du terme pour ñi koy dégg ni mu concerné. mais jël leen def def seen promotion. mais Babacar pourquoi vous vous lu tax ngay tëj jéggi. non parce que non transiment lañ di. oui waaw d' accord ah, ah, di jéggi. mais ah, lii boo defee laa bokk la tamit ci loo xam ne day yàq. li may wax réew bi transhumant transhumant la. bu faroon yàq lu mel ni mag chaque jour samedi mag ma génn leen fàttaliku yoo xam ne da ngay taf sa nopp. mu yàq ngay yàq Macky Sall lu mel ni xeme tey ji nga bëgg ko riitil même moom bu duggee ci bureau am day wax ne kii daal moom day sóob parce que fi may yeggalee foofu rek. transhumant transhumant fi may yeggalee li nga xam ni mooy faayu système mu Macky Sall politique en tout cas. parce que bu weesoo bilan bi nga xam ne ñoom dañu ko war a wane. nu mën a dem rek am na lu ñu war a wane. Mhm. ñu wane ko topp si wan ko Sénégal yëpp ñu gis ko. Mhm. ils ont fait des réalisations am na lu am mais mën nañ ci insté wan ko si mais beneen mbir mi mooy deful promotion de ses responsables politiques. gis nga depuis Senghor en passant par Diouf Ablaye Wade dañuy am dans chaque région. Mhm. benn responsable boo xam ni day muur région bépp. ba ci Ablaye Diack mi nga xam ni moom la ñu mujjee gis kaw Kaolack ñu gën a Cheikh Abdou Khadre Cissokho Robert Sagna ñooñu ñu nekk ay nit yoo xamee ni fu ñu waxee ñëpp dañu leen di déglu am nag les les moyens parce que politique moyen la mais li ñu seetlu si Macky Sall mooy euh, bu fekkee ministère euh, regarde le cas de Dakar bu ñuy wax nga jël promotion def Amadou Ba par rapport à ce qu'il gère comme portefeuille ministère économie et finance peut-être moyens yooyu nga yaakaar la alors que jeunes yi boo defee promotion le cas de grand yoff nga xam ni Khalifa Sall moo fa nekk. nga war a def promotion jeune. Cheikh Bakhoum que je n'ai jamais vu xaw ma nu mel. ADIE ADIE. nga am Thiès des jeunes comme comme par exemple Malick Mbaye. Mhm. un exemple Fatick ay Birame Faye. des jeunes yoo xamee ni qui sont là qui se sont battus autour de toi ba nga accéder au pouvoir mais yow jeunes yooyu joxoo leen doole boo xam ne pour ñu mën a jàkkaarloog seen i seen naataangoo jeunes. di leen mhm. tontu di wax. joxale leen mooy mettre leen dans des dispositions yoo xam ni finalement yow ñi la entouré rek ñoo lay tontu te on a comme l'impression que nit ñu bëri dañoo dañoo replier wu plier wu si si si jàppale président Macky Sall parce que bi muy jël journaliste yu bëri on avait pensé que quand même ëllëg bu coow amee ils seront sur les plateaux de télé en matière de communication wala d'argumentation mën nañoo wax loo xam ne ñenn mu ñu ko wax mais nag dama fekk na Babacar am na journaliste yoo xam ne balaa ñoo dugg dañoo wax yu Ah, seen wax leen ah, tënk waaw seen wax a leen tënk. dañoo wax wax yu garaaw yoo xam dañ ko gaa ñun dañ ko écouté. lu lu yi wax écho écoté ko boo xam ne boo ñëwee toog rek ñu ne la yow. Pape juste si si lii Babacar di wax par rapport ak. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, tontu euh, Sonko. Mhm. en fait tey bu fekkoon ne promotion wu jeunes yooyu am na. des jeunes qui ne doivent rien à personne. Mhm. sauf seen njàng seen liggéey te am na dans la paire am na yoo xam ne le livre de Sonko mën nañ ko jël démonter ko argument contre argument. Mhm. comme ni ko professeur waxee sànq. Mhm. mais boo jëlee un Ousmane Tanor Dieng qui dit oui on ne va pas confier le pays à des jeunes aventuriers mais la question simple que n'importe quel jeune sénégalais di poser. Mhm. mooy yow tu n'es pas jeune aventurier tu es un vieux qui est là peut-être depuis 60. mais qu'est-ce que tu as fait pour ah, le pays loo def pour Sénégal c'est des questions que que qu'on pose mhm. alors que loolu su ko fekkoon ne ku yam ak Sonko yam ak moom jàng tolloog moom ay at nekkul un produit du système comme ni nga ko waxee jariñoowu ci depuis 1960 bu taxawee ne de parler aux jeunes sénégalais ne leen Sonko mi bu ngeen ko joxee seen réew ci aventure la ñu jëmee parce que nangam ak nangam su boobaa les jeunes sénégalais déglu ko que Ousmane Tanor Dieng dit par exemple il faut simplement nga xool les réactions ci réseaux sociaux yi. da ngay comprendre simplement que ne les Sénégalais. ñu ngi nekk ci monde yu monde yu bokkul. alors nga dégg Moustapha Cissé Lo qui a été avec Senghor Diouf Wade Macky kii di non mais attends à la limite da nga naan mais attends Macky Sall qu'est-ce qu'il a système système mu bi. Mhm. utilisé nañ ko longtemps contre Ablaye Wade. waaw xëy na fàttewu leen ko. Mhm. dañu wax ah, Ablaye Wade. moom mi la woon ah Xadafi mhm. Ahmed Ahmed Khalifa la ñu utilisé woon. très bien Xadafi ay arme bi <laughs> mag ñu bëri. ba soxna yi Ousmane Ngom. waaw ah, def affaire bi nekkoon Air Afrique. génne mag ñu bëri yooyu mag ñu bëri <laughs> système bi système bi euh, on va aborder un point Madické Madické Niang est-ce qu'il peut représenter quelque chose wala candidature am pourquoi je pose cette question parce que ma Madické mosuma koo xamal base électorale quand ba Abdoulaye Wade nekk 12 ans au pouvoir sax Ndar Awa Ndiaye Cheikh Tidiane Sy Ngom ñoo Braya Ahmed Fall Braya. Hmm. def naa ñoo ko doon xëccoo. c'est pas un politique. c'est pas boo liiree lettre bi rek. waaw ayca <laughs> jibi professeur allez. waaw euh, man man dama rafetlu débat bi parce que ba ba léegi. Mhm. même bu ñu waxee Sonko bu ñu waxee Niass bu ñu waxee ci ay principe la ñu ne. voilà très très bien. donc je crois que c'est important. Hmm. c'est boo ko dee xool euh, ci ay principe naka la nit ki war a taxawee naka la ñu war a organiser woo. Hmm. parce que en fait dañuy dafa am importance il faut que ñu waajal euh, si kii yëpp euh, euh, système yëpp ba nga xam ni bu ñu demee ci ay idée rek la ñuy nekk quoi mm-hmm. ci ay proposition la ñuy nekk donc loolu c'est c'est vraiment important alors boo boo boo xoolee le PDS ni mu ni mu bindee woon xam nga loolu aussi il faut ñu xoolaat suñu organisation parti parce que parti yi nga xam ne ñoo nekk opposition ëllëg ñooy nekk au pouvoir donc est-ce que démocratie mm-hmm. interne mi ngi am ci parti yi mm-hmm. moom laa doon wax sànq léegi dañu doon wax benn constante ak ay variable yenn saa sëñ bi di nga yore nguur gi mais ñi la wër duñ la dimbali. Mm-hmm. en réalité ñoom ñoo la dul dimbali. Mm-hmm. yow peut-être sax di nga bëgg gérer affaire bi duñ la wax li li am yenn yi dañ la koy nëpp. boo jógee ñu wutal la noonu boo jógee ñoom ñoo lay wutal ay noonu. en réalité ñoom ñoo lay créer problème quoi. Mm-hmm. Euh, gis nga euh, euh, Assane wax na ko sànq Wade bi mu perdre pouvoir bi ñenn daf leen a mere. parce que li ñu ko doon wax ak li am bokkul. Diouf aussi wax na la même chose bi bi muy perdre le pouvoir il avait dit que ne man li ma doon wax yëpp dara amu ci. alors euh, euh, Macky jàng na ci certainement. ci oh, ci ci école lu mel noonu. Mm. war na def attention. alors Wade bi mu fi nekkee à un certain moment wàdd la ku ànd ak doomam ànd ak doomam ñu ci la ñu créé woon. Euh, génération du concret ñu cadre yu bëri dem bokk ci parce que dafa nekkoon moyen boo xam ni pour ñu et cetera. alors bi ñu ñëwee wàdd perdre pouvoir bi ñu ni Karim moom mooy seen candidat. te ñëpp xamoon nañ ni Karim amoon na problème ak la justice. d'ailleurs foofu ji bi dama lay jox benn moom laa teg naa benn élément la dernière fois. mën na leen ñiy yuux di wax ñëpp foog ñu def tànk. parce que ba ñuy organiser mascarade bi ñoom ñëpp ñu ngi nii toog. mais très bien loolu cautionné ko te boobu xamoon nañ ne c'est ça le problème. loolu laa la doon bëgg a wax. ñoom ñoo àndoon ni benn plan dong la ñu am mooy plan A. Hmm. ñoom ñoo ci àndoon. ñoom ñoom ñuy taxaw ñoo ci àndoon ni plan A la ñu léegi jamono dox na. ba ñu ni léegi ah nañu xool naka la ñuy def. Mhm. alors am na ku ñu waxoon ni moom moo bind lettre daal ni nañu wax ni plan B la ñu ni ci ginnaaw mag di koy moo ci ne. ma di koy weddi loolu. Mhm. ba dem gisee waat ba ñu juboo waat. Mhm. ginnaaw gi ñu ni gis nañ ko ni léegi nag moom dafay dafay dafay defar parti dafay présenté wu. alors man je crois que il y a plusieurs problèmes benn. ci ci li ñu war a jàngat mooy parti politique yi ni ñuy organiser organisation c'est important une démocratie interne que bu ñu taxawee wax ni kii moom mooy suñu candidat plan A foofu ñu ko waxee ngay taxaw ni loolu jaaduwul bu fekkee ni plan A am nañu mooy suñu candidat tamit nañu préparer plan B mmh. mu leer ñu xam ni yow ci position yooyu nga nekk mmh. gis nga Souleymane Ndéné Ndiaye ak lépp luñ ko mënti wax. Mhm. moom moo taxaw ni Karim xale bii du ma nangu mooy ñëw di topp ci ginnaaw. parce que jamono derrière jamais derrière sa gosse. jamono jooju. Mhm. Euh, euh, kooku mi ngi amoon pouvoir. Mhm. alors ndax ñu mën a am non gis nga euh, sëñ bi organisation parti politique léegi lañ leen soxla les cellules de cadre il faut ñu liggéey il faut ñu liggéey ci ay programme alors Madické li fi mu toll nii ci li mu mën a liggéey. mooy offre. ban offre bu bees. la mën a indi proposé ko. Hmm. ban offre bu bees. parce que fi mu toll nii base ci boppam sax dafa nekk lu volatile ah. fii kenn moomul fenn de. Hmm. ay maa toog euh, géejewaay maa ko moom. Hmm. maa toog kees maa ko moom yooyu xewi na de daan na am. nit ki nekk foofu et léegi base moom moo moom moo moom moo taxawul ngi xam nga lan mooy base lan ngay wax nit ñi. ndax li nga leen di wax yanu na maanaam ndax nit ñi am nañu kóolute ci yow. ci yow voilà. loolu moom mooy base nit ñi li ñu gëm mooy depuis 1960 ba léegi loolu sax avant 1960 bi fi tubaab bi nekkee ba léegi mm-hmm. dañ leen di nax seen alal bi ñu am duñ ko gérer mu leer dangay gis koo xam ni maa ngi moom a yem mu jékki-jékki euh, mel ni koo xam doo xam fa mu jëlee xaalis ba mm-hmm. mu lay romb guddeeg bëccëg doo ci mën dara système yu mel noonu moom la nit ñi bëgg a jeexal tàkk nit ñu teg ko ci yoon lépp leer ki nga xam ni dafa war a am daf koo teg ci ñaqam ñu mm-hmm. xam ni moom moo ko war a am jàmm ni ñooy mais du nekk loo xam ne ci biir kër la wala sëriñ bële moo li kii doon wax moom mooy dëgg c'est-à-dire que boo di man ñi may wax le gor les grands opérateurs religieux. Mm-hmm. <laughs> c'est un peu pour. <laughs> c'est le sociologue qui parle, j'ai compris. mais en réalité. bëgg a jouer ci ci ci ci opérateur yooyu. Mm-hmm. ça ne marche plus. da ngay am sa programme et Madické ñu ngi koy xaar ci foofu. est-ce que dina am benn cellule bu mu teg bu travailler sur un programme sur une offre alternative daal ni man lii laa proposé population yi. très bien pour ñu mën ci àndal. mais euh, Assane euh, waa PDS dañoo bëgg a jaaxal nit ñi <laughs> ñu bëgg a jubal Sénégalais yi. carrément parce que démarche bi cohérent depuis d'ailleurs bi Karim génnee kaso ñu génne ko naan grace boo xam ne dañ lay exiler kenn xamul euh, ñu ñu lànk communiqué wuñ ci loolu ba léegi. mu topp leen tey Madické Niang en réalité candidature am ni koy comprendre ak ni mu ko waxee d'ailleurs c'est très clair mm-hmm. du candidature contre Ablaye Wade wala Karim Wade attention candidature de substitution la wax xam nga loolu lu mu teg non ah, ah. ah mais alternative mooy loolu rek au cas où au cas <laughs> li ngay wax laay dëggal parce que ñi doon dox oh. tànku jàmm maa ngi ci dégg kenn tey mu ne Baara Dolli la je crois mu ne Madické nee na. Mhm. bés bu ñu demee conseil constitutionnel ñu nangul Karim Wade candidature am. boobu day roccee boobu duggati mooy li ma la bëggoon expliqué. li ma bëggoon expliqué mooy Madické dafa def candidature réserve xam nga soldat réserve <laughs> soldat réserve. loolu loolu rek lañ ko mën a comprendre parce que Madické Niang jamais. Mhm. mu défier Ablaye Wade. Mhm. waxoon naa ko te dinaa ko répété. du nekkul ci logique gu défier Ablaye Wade dafa nekk ci logique mooy góor gi dafa xaw a naax xam nga naax gi mooy. fa mu mooy la mooy. kenn du wax leneen lu mu dégg moom xam na loolu mu ne parti bi risque bu rëy la nekk loolu militants yi tiit nañ ci mooy parti bi bañ a am candidat en deux mille dix neuf. mu ne loolu mënuñu ko accepter comme ñu ko accepter nañu def benn candidature boo xam ni dafay nekk comme soldat de réserve. bu soldat yële sonnee ba Karim mënta ñëw mu parti bi nar a ñàkk man ma taxaw sama candidat mhm. moom foofu la taxaw de mhm. foofu la taxaw Ablaye Wade moo mënta dégg loolu médiation yi am na classe bu njëkk bi bi mu amee effectivement Touba bàyyiwul mhm. dañuy jóg mais classe bu njëkk boobu. waaw foofu laa waxee ne est-ce que Wade tamit décrédibiliser wul Madické Niang aux yeux de l'opinion. pourquoi. xam nga Wade da ko attaqué frontalement. waaw ne ko yow yaa song yaa ngemb ñii. mu tontu mu tontu waat ci xaadimu rasul waat ci yàlla ne moom yoonam nekku ci nekkul ci affaire candidature. mu bindaat ko beneen bataaxal na ko comme waat na ci xaadimu rasul. Ah. waat ci yàlla. bàyyi na d' accord naa ne man maa juumoon baal ma. nga toog ñaari semaine nga da dama bëgg doon candidat. maanaam la ñële wax ko li li maanaam mu tekki mooy. Ah, même bu ah. fekkee ma dikkee euh, kiiwu lettre bi. Mhm. nekkul woon ci suuf. tamit li ñee xalaat la xalaat. li ñoom Assane Mbacke boobu Wade yëg nga ne moom loolu. si si Wade est parce que ma dikkee na def attention parce que su ma doon moom. <laughs> dinaa vérifier micro yi sama kër. Ah. <laughs> par exemple non parce que li may yokk foofu. attention li muy def rek waa da xam na mais liir nga lettre bi mu bind démb. waaw parce que moom mi ngi glorifié wu élection wu 2017 à Touba. mais Madické Niang gañewul Touba. c'est waat parce que damay ñëwaat ci sa base politique boobu nga wax. parce que moom c'était le bras droit de Ablaye Wade à Touba. moo doon demal doxal Ablaye Wade lu nekk léegi ñu gagné 2017 législative yi moom mu ne je me suis pour qu'on gagne à Touba gañewul Touba du basam moom basam Saint-Louis la. te Saint-Louis moom xam nañ ni yàlla xam nañ amu fa dara bu fekkoon am na ndigalu Ablaye Wade bu demee mën na nekk une candidature dangereuse. dangereuse voilà mais bu fekkee moom Ablaye Wade àndul ak moom suicide bi. il est obligé li ma gis mooy il est obligé mu génn ci wala nopp mais candidature am en cinq mois même offre boobu est-ce que il a il a le temps pour mu def ko benn bi mais deuxièmement xam nga ñu bëri dañoo fàtte ni euh, Abdoulaye Wade au-delà de Karim Wade mooy la même personne qui s'est battue contre tout le monde bu egsi fii tous les numéros de gis nga en 2000 euh, astafurlah en 1985 nga xam ni Serigne Diop la plus grave crise mmh. du PDS. Serigne 1985 la. Serigne PDS le 13 octobre 1985. <laughs> waaw pour être plus précis. dafa am benn plant bu ñu ab plainte Ablaye Wade Alassane Cissokho moom mooy moom mooy papa yu papa yu Sophie Ndiaye Cissokho. Hmm. première femme députée. Hmm. dañoo amoon fronte moom ak seriñ Diop ak un certain Mohamed Seck. bi ñu nee Ablaye Wade léegi daal parti bi ni muy doxee mënatu la demee nii benn nit rek chaise yi sax sa tur si nekk 85. léegi il faut que loolu dakk ñoom nag ils étaient nombreux au comité directeur ñoo ëppoon Ablaye waat nit <laughs> léegi crise bi dem Serigne Diop sonal ko bu Ablaye Wade tenir comité directeur Serigne Diop ak ay nitam def ko avec logo PDS ak lépp def ko muy dem boobu am na nag benn fondation Neumann xam nga xam nañu moo doon jàppale PDS yooyu mm-hmm. mu am benn détournement selon eux Alassane Sissoko boobu porté plainte contre Ablaye Wade ba amoon benn trou boo xam ne dañ ne ko Ablaye Wade justifié Abdoulaye Wade justifié si affaire carburant mais carburant bi gars yi ne ko yow mais carburant bi li nga bind daanaka mën na mën na wër Sénégal ñetti yoon <laughs> wala boog la terre ñetti yoon donc justifié bi ñu porté ma dikke Niang bi moo nekkoon avocat wu ñooñu di dénigrer Abdoulaye Wade en 1985. 85 déjà. di ko dénigrer nekk avocat bi di bind ay documents di ko jàllale ba nit ñi calmer ko donc ma Madické n'a jamais été si wetu Abdoulaye Wade jamais ba 2000 nekkuloon PDS. bi affaire yi jege la nekk avocat wu maître Ablaye Wade mu tax mu ñëw te li Pape wax moo dëgg deful politique mais man depuis 2013 dégg naa. et d'ailleurs c'est une longue dégg naa mi ngi mi ngi nas mi ngi nas ay affaire man 2013 à Touba les informations génn nañu. mais y a moi j'étais au courant de sa candidature daan ne. mu dikkee dina sa candidature il a cela te c'est le milieu mouride ñoo ko doon wax parce que yaakaar na ni moom. foofu la mën a am benn garantie pour dem élection parce que xalaatoon ni Karim Wade dem mais loolu tamit man dama gis ni moom warul def loolu loolu nekkul cëram. non mais au-delà de ça est-ce que et ce que Moustapha mhm. là au-delà de ça il ne pas s'assumer xam nga moom laay wax tous les mhm. responsables du PDS. koo xam ne yow d'accord ci candidature Karim Wade. Mhm. nga ne man d'accorduma ci candidature Ablaye Wade. bi Karim Wade bi. foofu ñu ko doon waxee foofu ñu ko doon waxee. Mm-hmm. ba pare nga jëg taxaw. Mm-hmm. ne man mii dama bëgg bokk. d'accord ñaar rek pour dëggal li li li Babacar wax sax et je crois aussi wax na ko man dama def une chronique si Walf TV en parlant mm-hmm. de Madické. j'ai la perception perception bi ma am ci relation ma ak Abdoulaye Wade mooy d'excellente relation depuis toujours pour dëggal li Babacar di wax. bi ma ko defee pare le lendemain kenn suñuy ancien ba mën naa tudd fii. woo ma téléphone ne ma Maître Seye Madické n'était pas l'avocat de Wade oh il était avocat de Samuel Sarr premièrement deuxièmement un de journaliste woo ma ne ma yéen a ngi wax Madické dina nekk candidat du ko nekk ak dina ko nekk du ko nekk mais man maa la xamal ne man ci sama bopp j'ai pas son autorisation moo tax mënuma wax trop mm-hmm. je travaille depuis plusieurs mois ci offre politique pour bu Madické Niang hmm. donc ça veut dire que lu mu donc cela veut dire simplement quoi que ni c'est pas quelque chose bu ñu toog mu jàgg rek ñu ne oui comme Karim mënul ñëw nañu wut substitution wala nañu wut alternative lu ñuy lu ñuy liggéey la depuis très longtemps man en tout cas loolu moo évolué ci ci analyse bi ma doon def dans cette dans cette affaire là mu may indi ci lu très simple et Ablaye Wade l'a tellement bien compris moo tax quand on dit parfois day dafa naax je dis que xëy na day naax mais naaxul dana ay yoo xam ne xëy na mais quand booy lire lettres yi mu bind mm. nga naan kii ñun information yi ñu amul woon wala ñu am ko tardivement moom amoon na ko bu yàgg parce que quand il dit que ni ma dikkee une première fois une l'attaque de manière frontale ne ko da nga nekk en collision ak Macky Sall euh, pour nangam ak nangam ma dikkee contourner ne ko euh, euh, maa ngi waat ci sëñ Touba affaire man waat bi di mais très bien. gongo mm-hmm. puisque yaa ngi waat ci sëñ Touba te ñun ñëpp moom lañ bokk moom lañ gëm teg naa lépp ci suuf mais qu'est-ce qui après une semaine ou deux semaines après une semaine ma dikkee jógaat ne dafay dafay nekk candidat te candidat à la présidentielle euh, professeur Djibi Diakho na ko duñ toog à quinze à cinq mois de la présidentielle nga ñëw un parti comme le PDS ah. nga ne maay nekk seen candidat non je me dis que ni bañ ko waroon def mooy ba Karim Wade nekkee prison hmm. ñuy xaar verdict CREI Abdoulaye Wade réunir son congrès la hmm. ne Karim mooy nekk seen candidat ñoom ñëpp ñu jóg tàccu applaudir ñiy wax ñëpp moo ah, aale ñoom ñëpp tàccu boobu lañu waroon a wax ne attention àdduna day dox et est-ce que bu ñu demee. est-ce jot na ñuy def sax congrès pour investir le exactement personne ne l'a fait moo tax tey dama d'accord trop ak maître euh, Amadou Sall. Ah qui qui dit que. prôner une euh, un plan B mooy déposer les armes chez Macky Sall. parce que PDS tey qu'on le veuille ou non. Mmh. amatul issue. amatul issue. Karim Wade sera candidat wala le PDS ne sera pas à ces élections là xaw ma nan la ñuy def nag. wala wala Wade yàkkale. wala Wade yàkkale yàkkale bi nag laa gën a gëm yàkkale bi mën na nekk yàkkale bi mën na et puis une mm. dernière chose. ñu bari ñi ngi naan wéy un parti comme le PDS mënul bañ a am un candidat à la présidentielle même du temps du côté du pouvoir te loolu moo tax ñu ñu crédibiliser le fait que peut-être. collision bi. Mm-hmm. mooy dañ naan ma dikk Macky Sall il y a l'AFP qui n'a pas de candidat le parti socialiste. il PS qui n'a pas de candidat. est-ce que est-ce que cela veut dire que ce sera la première histoire dans l'histoire politique du Sénégal. la première fois le parti socialiste di dem ci élection présidentielle sans candidat. exactement oh. et man ça m'amène. le PS des valeurs. <laughs> <laughs> non alors soo ah. nangulee le PS soo nangulee le PS de Ousmane Tanor Dieng bañ a am candidat. nangul AFP bañ a am candidat PDS aussi ñu jub miir bi ne danañ ko mbëkk duñ wàññeeku. am na ci droit lenn li <laughs> tey dama lire Mamadou Oumar Ndiaye y' a pas meilleure que lui y' a pas journaliste plus sérieux que lui dans ce pays. grand moom ñu ngi lay mmh. lu lu simple. te man dama j'aime bien ce mu ne le cas Pascal et Affi N'Guessan en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui s'est passé. oui le FPI bu Laurent Gbagbo la ñu écarté à des élections mmh. Mmh. jàpp bag Gbagbo yóbbu CPI comme ni ñu exile Karim Wade c'est pratiquement la même chose. jàpp Simone def ci kaso bi. ak tout ce qu'il représente. jàpp ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. paf on va vers des élections présidentielles. Ouattara jékki-jékki taxaw ne mais man je maa ngi dem ci élection boo xam ne FPI du ci bokk. ban crédibilité la élection boobu di am au niveau international. Mhm. ñu ne noonu nañu nañu obligé FPI ñoom candidat ñu jëli Pascal Affinguessan. Mhm. def Pascal Affinguessan candidat. Mhm. mu ñëw au nom du FPI pour nekk candidat waa FPI attaqué leen devant la justice ivoirienne on sait ce que ça vaut ñu ne non. euh, il a raison de le faire ñu nekk candidat Modou Oumar Ndiaye dit c'est pratiquement la le même scénario qui se présente avec avec euh, Madické Niang tey jii s'il se présente comme la candidature alternative du PDS mmh. le PDS va l'attaquer en justice mais qu'est-ce que les magistrats vont dire mais il est libre d'être candidat et ça <laughs> merci voilà. merci Moustapha merci Moustapha merci beaucoup préciser yaakaar naa professeur waxoon na ko sànq que war nañ ci jàngat lu mag ci parti yi ni ñuy fonctionner mmh. kenn mënul avaliser Ablaye Wade ni muy ŋànke parti bi. dégg nga parce que bu ñu ko ko avaliser ëllëg bi biir keneen dina ko continuer di def. te erreur la à partir du patrimoine personnel. ñëpp ñuy kaas tey bo ma dikkee bokk na ci. ci ñi responsable ci situation bi ci lañ bokk. parce que ñoo doon wax ne Ablaye Wade mooy la seule constante. les autres or ñi si ñi si bari fi ay jullit lañ. yonent bi sallallahu alayhi bàyyi bàyyiwul ñu sunna boobu. bu daan wax. Seydina Omar dafay laaj ndax lii si yàlla la jóge wala yaa ko wax wala yaa ko wax bu fekkee yaa ko wax nañ ko seet <laughs> or fii Ablaye Wade la muy bëgg a wax sax gars yi ni d' la mu xalaat sax ñu ni d' accord muy wax ak la mu bëgg a wax ak la muy def ak yëpp ñu d' accord ne ko yaay constat amul benn nit si àddina boo xamante ni doo juum amul benn nit si àddina boo xam ne loo def noonu la loo wax noonu la Macky Sall sax am na ñu ko wër actuellement di ko def noonu di ko jey ku la ko def mu ngi lay sànq hmm. ah, nañ ci jàngatee loolu. actuellement jël sa parti naan da ngay jël sa doom di ko tongaak yooyu naan da nga koy dugal Karim si boppam moo ko war a bañ. ni ko ab baayam di def nii. waaye quand même ak âge bi mu am. quand même di kii pousse doomam. Mm-hmm. Karim Wade si boppam moo war a taxaw bañ ko. Mm-hmm. loolu responsabilité ku si nekk la ci ci biir PDS. Mm-hmm. nga bañ a avaliser système boobu. parce que système boobu ëllëg si bi ko ko fi def. di nga mbëkk mur. alors euh, benn peu de moo ñu dese ah. dina bëgg ñu wax ci benn affaire rek sondage mieux vaut les publier maintenant. parce que tout le monde parle des sondages la loi. contre les sondages. le président de la République a été le premier. 54 pour cent jox na ma 54 pour cent. Mm. alors l'interdit. Euh, donc journal bu xëy suba def ko à une tamit. ah journal nga def na ko à une. journal bi ma déggoon moom mu ngi 34 <laughs> waaw man sondage bi ma dégg ma nit. mais ñoom ñoom li ñu am ces informations. yi gën a bëri il est autour de 30 pour cent. non en tout cas ñoom euh, li ma leer ba leer mooy que ni moom. Mm-hmm. Ousmane Sonko moom ci lu leer ay sondage ñoo ko porté fi mu toll. Ah, moo tax ñu tiit moo tax ah oui non loolu moom de source sûre moom. <laughs> moo tax ñu tiit parce que parce que les gens ils commandent des sondages. est-ce que les sources sont concordantes. Euh, waaw waaw mes sources sont con mais xam nga mes sources sont d'autant plus concordantes que euh, ñëpp dañuy commandité ay sondage mm-hmm. mm-hmm. maintenant yow mi ko yow mi ko def si c'est crédible gaa yi mën nañu génne ko au niveau de la presse wala garder ko mais man de. parmi ña ñu demoon structure yi pour commanditer ay sondage le gars moom leer na ko ni Ousmane Sonko il fait partie il devient un danger pour lui. très bien alors sociologue. dafa am nu ñu koy defee. dafa am ay règles dafa am ay. bien sûr très technique koy alors loolu très difficile gis ah. nañu mm-hmm. ay cabinets yoo xam ne yu xarañ lañu. sondage yi ñu mujj def ci affaire ci élection yi. ci bëri dañu dañu dañu dañu. dañu doon daanu marge d'erreur mais loolu euh, ci dëkk bi ñu toll Sénégal fi ñu toll ci démocratie loo xam ne dañ ko war a autoriser la mu am nag ñu organiser ko mu encadré ko mu am ñoo xam ni yàlla daf leen may euh, xam-xam ci loola mhm. ñu doxal ko mu bañ a nekk lu ñuy politiser mhm. mais sondage léegi dafa am beneen façon xoy yi dañuy sondage. waaw mhm. ah, bon je veux dire que te des fois dafay nekk <laughs> bon. <laughs> c'est nekk benn façon sondage boo xam kii la suba kële la. même benn plateau télé mën nañ def sondage. mais voilà donc loolu <laughs> météo politique il faut ñu organiser ko. Mm. Euh, mu nekk loo xam ne dañ koy teg ci lu leer. am moment yi nga xam ne moom la ñu war a def ay sondage et cetera en tout état de cause parti politique mën na am observatoire am di xool. Euh, nit ñi nga xam ni favorable nañ ko fan la ñu toll à tout moment mm-hmm. est-ce que pente bi mi ngi jóg est-ce que pente bi mi ngi wàcc parce que loolu moom moo am aussi mm-hmm. nit ki mën na nekk ci pente buy jóg benn instant mën na jékki-jékki pente bi wàcc wax benn discours rek discours bi wàcce sa wàcce sa image voilà mën nga jóg nekk ci pente ascendante ah, bu jaaxal nit ñi mm-hmm. ni waa ji mi ngi jóg mi ngi dem benn erreur bu ndaw wàcc affaire yi mm. alors loolu boo amul benn observatoire moo tax encore une fois cellule cadre yi nañuy liggéey ci loolu parce mm-hmm. que c'est important service boobu la ñu mën a indil seen i parts alors moi je pense que bu ñu bañee sondage bu fi kenn ñëw taxaw di wax ne am na un million de par signature parrainage mm. parce que loolu ça insinue que am naa un million de votes mm. <laughs> Ah, il faut que ça soit clair. Alors, merci beaucoup Moustapha. Oui. Merci vraiment, ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. Oui. Euh, Babacar, euh, mon grand frère de même que Assane Sam et Djibi Diakhaté. Euh, di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig daje àllarba incha allah ci beneen émission décryptage.